di soité fii comme niñ koy euh, baaxoo di defee saa ne ci waxtu wi di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku ci yéen euh, di ñaanal kilifa diine yi ak kilifa aada yi euh, di ñaanal soxna Mariama si mu Sëriñ Babacar si yàlla saa borom dooleel ko kàttanal ko may ko gudd fan ba mission bi nga xamante ni moom la tàmbali yàlla may ko kàttan gum ko àggalee. ci noonu tamit la ñuy jaajëfale waa Salam Vision yi nga xamante ni ñoom la ñu àndal ci liggéey bi mën ngeen a tàppe Facebook bi di ko am di euh, béggee bokk internet yi rawatina ñi nga xam ñoo nekk ci TikTok bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax gis gis commentaire yi aussi itam gën leen a tapoté gën leen a partagé live yi mu gën a yaatu comme soxna Mariama moom tey moom fi mu génn gaa ngay commentaire ca vert ba waaw ca verte ba la tubarkalla <laughs> soxna Mariama ginnaaw bu ñu leen nuyoo siyaare la di la ñaanal jàmm ci wàccaayu euh, appel bi nga xamante ni ni ki ëllëg la ak euh, ginnaaw suba ginnaaw bu nu jógee nag ci dëkk bu sell ba di Touba ci màggalu Serigne Fallou gi nga xam ne moo di Kazu Rajab euh, ni gis ëllëg ki euh, talaata ji ci la ñuy amal appelu laayeen bi ak àllarba ji ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaare la ana la ngay nuyoo mbokku internet yi. bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim auzu mm-hmm. lay màggal. maa ngi lay tatagal te di la jox sa yéeguwaay bi suñu borom jox di lay ñaanal ci barke sëñ Fallou mi nga yaakaar yal ndax nee bu ñu fi toogee di émission muy neex rek lu mm-hmm. <laughs> ba nit ñi mën koo déglu rek yàlla ko jama tax dañuy bàyyi yàlla noo rëy nii di lay ñaanal gudd fan di lay di ñaan yàlla la fi yàlla yaakaar yàlla a a baax mm-hmm. ah, jógee bi dañ la war a ziar dañ la war a ziar ndax dem kasu rajab dem Touba yombul mm-hmm. rawatina lu dee ne màggalu sëñ Fallou dem wuti mm-hmm. yiw yiw ji ñu fa wuti képp koo xam ne teg nga sa tànk foofu ci diwaanu Touba mm-hmm. yal na yàlla faj allahumma amiin bu fa waay yóbbu soxla yal ko yàlla faj jàngoro ju fa waay yóbbu rek yal ko yàlla faj allahumma amiin Euh, ñu nuyu waa Salam Vision Ousmane mhm. ndax ñu mhm. leen fekkoo ba jóge di mhm. naa bu nekkee ci diwaanu TikTok TikTok bi ñoom nekk foofu ci diwaanu nit ñi di koy seetaan muy daal di leer ayoo sang bi tàmbalee euh, muy daal di neex kon ñu leen di sant di sama góor sama xarit suñu directeur général Samir Seck ndax naa bu ñu koy daal di leer di pallax rek moom la kon nag <laughs> Samir dundal wéeral ka yàgg fi Ousmane ñu nuyu suñu xarit yi ndaxte ku la bëgg Mm-hmm. ak ki yëg ak ku a safoo ki la faale mënoo ko fay Ousmane ndax heure bi heure bu baax la mm-hmm. heure bu baax bi la ndax ne naa heure bi tembe ñëpp ngi laayef mm-hmm. mais dañuy bàyyi seen yi te jàkkaarloo ñun te lu ñuy bëgg la yëg la safool ndax lii ñuy def connexion koy def te dañ koy root ba mu daal di pala mais nee naa sant la rek mhm. ndaxte lépp lu ñu fi wax njariñ la mhm. lépp lu ñu fiy dox itam fulla la fayda ak ngor rek lañ fi demee ak ñoom mhm. ndax Ousmane euh, dañuy encaissé xaalis su nit ñi ñu ngi koy envoyé nag depuis ci suba ñu bàyyi seen yitte nag jàkkaarloog ñoom ndax ñoom ñoo ñu ko jaral ndax ki la bëgg ki la yëg ak ki la safoo ki la faale mënuñ koo fay pour ñu leen di nuyu ñu leen di màggal suñu xarit suñu soppe mhm. suñu am di jàmm ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ñëpp ñi nga xamante dañoo tëdd ci hôpital yi mhm. mhm. Mohamed yàlla wéral ñëpp képp koo xam ne ay sooxaale jàngoro yàlla na fëgg sa ñuy dem ci prison yi Ousmane nit ndax ñi mhm. mu xatta lëndam laa ko tuddee ndax mhm. Ousmane benn nit boo xamante ni plus de deux cent personnes dafay mhm. tëdd kon loolu yaatuwul Ousmane bu fekkee yow ak salal da ngay ba fu la yam rek ba fu neex rek sànni tànk te loolu dafa neex Ousmane ko sànni tànk gauche sànni tànk droite dara du liberté nit def na dugg na fa nit deful dugg fan mhm. ndax barki démb seetaanaa émission bu doy waar mhm. nit damay sàcc te nee na dugg kaso mhm. kon mbirum kaso mbirum yàlla la ndax mënoo nekk ci loo xam ne du dëgg plus de dix ans te kenn tayewu la ci kenn mus la ko ah, kenn kon nga xamante ne kaso nit def na dugg na fa nit deful te dugg fa lépp natt suñu borom la képp bokk ci yaxeetu yoon yàlla yi suuf bu fekkee benn bés di dugg kaso nit bon na dugg fa nit baax na dugg fa te ba pare Ousmane ndax suñu yan client yi dañoo jaar kaso. Mhm. kilifa yi fi nekk kilifa diine yëpp dug jaar nañ kaso. Mhm. ak yàlla yëpp kon kaso du mbañ. te kaso mhm. nit bon taxul nit dugg fa. déedéet ah. Ousmane bu fi jógee ñu nuyu xalifa général. Mhm. ci xalifa général yi nga xam ne ñu ngi si Sénégal mhm. euh, fi nga xam ne dañ fa jokk te bokk fa muy Tiwaawan suñu xalifa général sëñ Mbay Si sëñ Mbay ñu koy mhm. ñaanal yal nañu yàlla tas si barkeem yàlla yàggal ko fi si maali bi maay maam jéemu sumb yal na yàlla def ñu def ay julli julli ñu kontaane waa Tiwaawan Ousmane sama mbokk yi nekk Tiwaawan neen dañuy commentaire ba sonn neen doo liir commentaire ko yëfam la du liir commentaire neen ñoom dañuy commentaire te samay bokk des fois ñu caf ci de ah, lu bare bare bare bu ñu waxee dama lay gëm ndax danga sa xeetu ceeb nijaay. non xeetu sa nijaay dafa ànd ak loolu <laughs> sa nijaay da nga koy wormaal mais daa xam naa ne sama nijaay dafa am laa bokk waaw Ousmane. deux mille commentaire yi dafay am solo ndax man commentaire bi may a mm-hmm, mm-hmm. commentaire mm-hmm, ba ma ko naan nañ ko dindi commentaire yu ma salde mu ne ma duñ ko dindi mu ne ma xam nga li nga duñ ko dindi mu ne loolu moom mu lay motiver pour nga am jom ndax sama mbokk sëriñ yi faaw lay jéem a ruube ak di lay jéem a di jéem a say live di commentaire kon ñooñu boo leen dee génne doo xam sa erreur kon ñu leen di sant Ousmane ñuy waa kër maam borom Touba di ñaanal waa kër sëñ Fallou Mbacké yàlla yàggal leen fi yàlla dëgëral leen di nuyu itam mhm. waa kër Maam Baye Niass waa kër mhm. Seydina Limaamu ñoom ñoo a lu dig njaag ñoom ñoo njaag nee naa ñoo xewle mhm. waa kër Seydina Limaamu Mahdi wu mhm. yal na yàlla yokk seen leer amiin te taas ñu si seen i barke te yàlla yàggal leen fi ci barke moo xam ndax Ousmane nee mhm. Sénégal daa neex mhm. ndax Sénégal di ngay tëdd sa tànk foo la neex di dund noo stress ndax fii Sénégal nee bu dul mag fi baax ñu fi tëdd suñu gendarme yi suñuy policiers yi kenn sañu fee teg tànk bay nelaw di xaabaabal ndax nee loolu jeex na ci àddina bi ndax fii rek la am kon yal nañu fi yàlla defal jàmm yàlla defal ñu fi sutura tudd ko ci àddina bi yëpp ci barke amin amin soxna Mariama si mu Sëriñ Babacar si yow it yàlla suñu borom gën la dooleel gën la kàttanal euh, ba liggéey bi nga xamante ni moom nga namm ci jaami yàlla yi yàlla saa borom gën la cee euh, defal ay tawféex euh, di jaajëfal aussi itam ñi nga xamante ni ñu ngi topp ci TikTok bi yëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax a baax donc di leen kontaane soxna Mariama tey waxtaan bi nga xamante ni moom laa bëgg ñu ubbeeku mooy. Euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di euh, faagaagal doomu aadama yi te wujjee guñu suñu borom euh, dem na sax ba ci léegi dañ ko faf léegi jëmale ci kilifa diine yi nga xamante ni nii ñoom nga ubbee léegi nii barki Dembo Njaay rek def nañ ko suñ mun Muntaxa Basiru Mbàkke mi nga xamante ni nii mooy mooy mooy xalif général kullu murit mm-hmm. man bi ma ko gisee sama yaram dafa daw damaa tiit dama ni kiy def lii xanaa du jullit mm-hmm. xanaa kiy def lii du nit mhm. parce que am na loo xamante ni nii euh, li ñuy wax naan lu ëpp tuuru mhm. euh, mais kooku di def loolu ci internet bi war nañ ko euh, lijjanti ba teg ko loxo mhm. fan yële passé ci jamono rayon na fi théâtre kat boobu noonu Lamine Ndiaye ñu ni déetawaay mu ray fi Kaaw Seydi moom day jekki-jekki rek ciblé kenn waaw moom dama yaakaar ne moom malaaka mu ndaw la wala je ne pas wala nit ñi ñoo ko déranger ci dund gi xaw ma daal mais loolu tamit jar na def ab taxaw seetlu Euh, wax ci ngir kii def loolu noonu euh, mu mën koo teel a teel a teel a parce que sëriñ si euh, duñu moroomu gone soxna Mariama ndeysaan Ousmane dañ lay jaajëfal rek ndax bu doon yow doo ko def bu doon man aw ma def ko ndax xam nga lan moo mhm. kilifa diine kilifa kenn waru leen di fowee mhm. kenn waru di leen di caaxaanee ndax Ousmane man yenn saa yi ma seetaan réseaux sociaux gis ñuy saaga kilifa mhm. ñu xam ne dafa mhm. am du ñoom seen barke a leen topp wallaay képp koo xam ne yaa ngi jéem jël dara loo xamante lu salte defoo leen ko mhm. sa bopp ko def te ki koy def na alerté boppam ndax xam nga li tax Ousmane Sénégal dafa xat nee naa loo fi def tey mu yendu suba ba ngoon te vilipande wuñ la rek nga mhm. xamante ne sa àppa jotagul mais mhm. bi loo fi def midi bala génn nga dugg ca kaso amul ma dem te ñëw bàyyi ndax dafa ñaaw mhm. ndax nga fekk sa moromu doomi aadama yàllaa ko sàkk yàllaa ko bind moo tax léegi dem nañ ba buñ gisatee ku dee sax dootuñu la yërëm bala ñu billaay wallaay billaay doo wóolooti sax ndax diw dee na ndax ñi ñuy faral di def loolu rafetul ñaawlu nañ ko Ousmane ndax nee naa Sénégal lu rafet lañ fi xam image bu rafet mais dañoo dem bay toppandoo tubaab yi ci seen jëf yu bon ci seen jëf yu salde ci seen jëf yu ñaaw te tubaab na ñemewul jël nit ku deewul di koy di koy di koy di ko publier ndax Ousmane Mm-hmm. jullit yi ak nit ñi nga xamante ne dañoo xaw a kàccoor mm-hmm. ñuy faral di def loolu day mel dañoo iñaan mm-hmm. ndax ku yéene nit dund rek kooku ku bon la kooku ku yées la ndax Ousmane dund dafa neex ku la yéene dee rek sa noonu la ndax xamuñu lu ñuy fekk àllaaxira dee mettiwul dee xam la ngay fekk moo metti bu dee sëñ Mountakha Bassir tooñul kenn buy wax jooy buy wax bala muy tàmbale sax nga gis xol baa ngay jóg yéenewul kenn lu bon ba fu ay am dina dem yóbbu fa daraam yóbbu fa ñaxam kooku dañ koy ñaanal mu yàgg fi ñaanal yal na ko fi yàlla gën a dëgëral waaye ki koy def Ousmane lu jig njaag mooy njaag waaye du ko jig déedéet mënu ko jig Ousmane lañ leen di bàyyi yu jëf yu ñaaw yooyu mm-hmm. lu bon baaxul mm-hmm. kenn def lu baax na mm-hmm. kenn def lu bon ba am ca ndam mhm, Ousmane. Mhm. nit da ngay fexe def lu baax. Mhm. roy lu baax di jëf lu baax. kon nañ leen bàyyi jëf yu bon yi Ousmane. Sénégal fii dañoo am image boo xamante ne macha allah. ci la ñu tubaab yi nawee. ci la ñu nit ñu baax ñu nawee. nañ leen di defar suñuy xool lu rafet ñu di koy dox. dañ leen di xool lu baax ñu di koy dox. def lu bon amul sens. mukk su amul benn wallaay ba am hmm. takkal ko ca raaya amul de toog bala nga di hmm, dee nga gaañu faatu yàlla ok nañ bàyyi loolu hmm. loolu baaxul yiwul Ousmane macha euh, loolu baaxul yiwul jekkul ñuy jaajëfal soxna Amina ci commentaire yi noo rëy ni naka mu naka màggal gi waaw sant nañ bu baax a baax a baax a baax soxna Amina euh, sant nañ bu baax ñaanal nañu ñëpp yàlla defal ñëpp jàmm yéen ñi nga xam ne yéen a nekk foofu ci biti réew mm-hmm. yàlla saa boroom gën leen a dolli jàmm dolli leen sutura ndax Mariama mm-hmm. euh, lu nit di ñaan suturaa ca yàlla bu la defalee sutura rek mm-hmm. am nga lépp waaw rawatina sutura moom mooy ànd ak jàmm ànd ak xéwal ànd ak ba nelaw waaw yeewu biddanti mbaa nga yeewu sax xam nga tubaarkàlla mais loolu Mariama euh, dafa doy waar doy waar goo xamante ni nii nit ñi léegi euh, sànq yaa ngi koy wax sénégalais dafay roy ba dàq Euh, nit ñi léegi jàpp nañ ni euh, réseaux sociaux moo leen mën a may lu ne da ngay gis sax nit am ak nit problème euh, du am fenn fu mu ko waxee day defub vidéo rek daal di tàbbal ci internet bi mm-hmm. te nit da nga war a am sutura nit da nga war a am looy jombale sa bopp xam nga àdduna du ma ni kenn dafa ragal Mariama ragal amut mm-hmm. nit da ngay am loo xam ni da koy jomba def mm-hmm. jomb naa def nangam nangam di ma ca fekk wala nangam nang diw di ma dégg di ma ca xeeb waaye bu dee ragal rek amul ku ci nekk tey jii nii am na loo xamante ni ñi me nga koo def man xam naa loolu mhm. waaye nit du ragal nit day am lu muy jombale boppam mhm. boo dee doomi gor am foo bokk dafa am lu bari loo xam ne dañ cee wuru ruus a def ñu lay dégg mhm. waaye lii ñaawlu nañ ko ba fa fa fa ba fa ba fa ñaawlu yam euh, te bu ñu yemoon ci loolu rek mu neex mais kilifa yi nga xamante ni Mariama ñoom lañ ci dugal euh, di di di di di xëy di tàgg ay kilifa yoo xamante ni te pourtant ñoom dañoo am ay doom dañu am njaboot am ay taalibe yoo xam ne seen xëy xajul sax ci benn benn ndongo donc ah. kon na gars yi arrêté loolu noonu nañu arrêté loolu te sàngante sutura waaye Ousmane yàgg nañ di koy alerter mais damay gis ne mbon gi day gën a yokk ak jëfam ju bon. Mhm. ndax dépp yàgg na. Mhm. am na ay kilifa yu fi doon rey. Mhm. ay kilifa yoo xamante ne ay nitu yàlla. ñoo xamante ne seen dund am njariñ. ndax nee naa kii toog di rey nit wala kii toog kii bëgg nit dee amul askan bi njariñ. ndax li mu def trip boo xamante ne yow da koy def koo gis sa fit dem. kooku amul njariñ te amalul njariñ askan bi. te moom na xalaat ne bés dina jot ñu mës ko rip. di laaj amul sax ma dem te ñëw ici repose mag du caaxaan ndax nga toog di tàggee nit nga toog dem jëfee ko wutee ko l'argent mm-hmm. ko moo ne moo gën a ëpp solo ngay toog amul njëriñ daal Ousmane di tàggee rek loo xam ne mënul yokk sa sa dund waaw ah. ah, nga daal di wut daal loo xam ne loo xam ne yàlla ah, hmm. daf la ci hmm. di wax waxi jàmbur man nga toog di hmm. soxor la ak am temps ki ñaan la de ak amuk jot waaw kay merci beaucoup am jot temps dafa cher nag waaw dafa cher wala nit doon ci farata na doon ci sunna man sama temps laa koy yàq na temps dafa cher Ousmane temps day dem kon diggante vendredi vendredi bi passé. Mm. ak vendredi gaaw wér bi gaaw waxtu yi gaaw. waaw benn na waar tabarkàlla ñu jaajëfal euh, Mbène Fall nee na salaam soxna Mariama macha allah awaloo ñu ngi lay bëggee bu baax a baax macha allah waaw comme nee nga commentaire yi. Eh, nañu lire commentaire yi muy yaatu aja euh, jibril bu sa <laughs> loolu ëpp naa jàllale dama jot dama non non mu naa doon jotale lu ñaaw ah, <laughs> du ma jot ci loolu ah, ah, man du ma jottale lu ah, ñaaw man ko formé nañ la ci loolu waaw waaw moom mën na dékku lépp waaw mais xam nga yooyu tamit aussi xam nga tiktok tiktok Sénégal mhm. mooy loo xamante boo defee lu baax ñu wax boo deful lu baax ñu wax mhm. kon toog dëgg la xam nga benn deux heures mhm. dëgg la tawfeex la waaye xam na ñi gàmmoog ñiy raas déem du ñu benn euh, te comme yàlla dafa def yow da ngaa toog di def te yàlla rek tax euh, tey ku mu neexul mën nga zappe cest à mooy li may wax waaw mooy li may wax tout le temps mhm. euh, tey ñun ci côté rajo mhm. euh, yow ak jaar nga ci rajo mhm. lu nekk dégg nga ko ci rajo donc tey nit buy def dara bu la déranger zappel nit buy def dara nekk live tiktok bu la déranger zappel nga dem ci leneen donc du ma lire commentaire boo xamante nii dafay wax nag suñu na gars yi am nga droit wax na gars yi mais képp koo xam ne da nga koy wax loo xam ne naka sa du noonu parce que gis nga Mariama li ngay génne ci sa làmmeñ mu nekk lu ñaaw boo xooloon ci sa bopp ni bu ñu la ko waxee noonu la lay méttee kon doo ko génne. mais bu ci borom ndax Ousmane. <laughs> dinaa lu mu ci mën di doon rek. Mm-hmm. koy woddu. Mm-hmm. ndax nit bu ci lu rafet. maa ko ci mm-hmm. rafet du mën a def lu rafet. déedéet du mën a def lu rafet. gisoo Cheikh Ahmed Cissé xam nga semaine bee dañoo toog di ñaan yàlla na ko yàlla génne. waaw dégg kii nee na nee na nee na <laughs> tooñ mësul baax. <laughs> Ah, bëgg yàlla. dëgg yàlla wallaay mais am na <laughs> ñoo xam dañuy judd ci tooñ màgg ci tooñ mm-hmm. kon nag buñ dundee dañuy daal di tooñ ñu may ñaanal si Ahmed Cissé mm-hmm. yal na ko yàlla génnee kaso ba barke defe naa mooy da une semaine ba mu génnee mm-hmm. moom sa ay génnul moom <laughs> génn na ma ngay jaay waaw ah, génn na de <laughs> ma génn na de wax joo xam ne jaay jaay ma ngay jaay jaay ba xam lu ma ci gën a neex njaayam day ànd ak wax joo xamante ne moo naam day xaw a vulgaire te nee naa nit mën na jaay mais bu vulgaire. waaw ah mm, mm, mm, ay wax de day rafet. ay wax day rafet de. <laughs> ay wax day rafet na daal daal di dem seetaani Salam Vision. daal di koy partagé ndax Ousmane. waaw waaw nee naa partagé live dama ko tàmm. waaw waaw ba yow na ne nga paase nga koy partagé lool. non fi ne nii gars yi topp nañ mais dañuy partagé rek. di tapoter muy gën a yaatu. waaw muy gën a leer. Mm-hmm. foofu ci diwaanu Salam Vision ku nga tàmbali mën nga ñu faa seetaan benn fall benn fall benn fall ndeysaan ñoom jël ma jël ma maa ngi fi depuis jël leen ñu waaw foofu lañuy foofu lañuy foofu lañuy jëm see xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga tey euh, mënuñoo toog fii nii mm-hmm. ubbee ak Mambay Laay mm-hmm. euh, ñu dëgmal appel suba ak ginnaaw suba parce que xam nga appel bi suba mooy Cambérène ginnaaw bu ñu jógee Cambérène deuxième jour bi ñu nga jëm Yoff te mu ngi ñëw toog fii nii wax ba àggal te du dugg ci loolu eh, ngay koo xamante nii nag nee naa la yow këru diini yëpp nga bokk yamale eh, bu Tuubaa xewlee yaa nga fa bu Njaasaan xewlee yaa nga fa bu Laayeen ni xewlee yaa nga fa bu cene ba cene ba xewlee yaa nga fa ba ci fi nga xamante nii fa nga jokk eh, kon bu ñu dëgmalee appel bi noo mënti def ñu dugg biir Yoff dugg Cambérène dugg jàmbalaay siyaare mboolem kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk foofu noonu ak bës yi nga xamante ni nii ñoo tegaloo ndaxte wax nañ la ko keroog ca waxtaan wu njëkk ba ñu jóge poroxaan mhm. jóge poroxaan dem tuubaa ci màggalu Kazu Rajab mhm, jóge ci màggalu Kazu Rajab fa yéene dem fi nga xamante ni moo di yoof mhm. Cambérène ci appel bi te ginnaaw loolu noonu ziare général bi nga xamante ni nii fas yéene nañ koo amale ca Tiwaawan laaxee naa li ci des Euh, bareetul donc bés yu baax yooyu yëpp yëpp yëpp nga xam ni nii 12 mars ah alhamdulilah jërëjëf Samir le 12 mars muy ziare général euh, di di di di di di di kër gi nga xam ne nii foofu nga jokk tey bés yooyu yëpp yëpp yëpp dajaloo euh, nekk ay tawféex soxna Mariama tey ana nga ñu mën a wax ci loolu noonu Ousmane. dañuy jërëjëf Amina ñu ngi lay kontaane bu baax a baax merci ci numéro bi ah. bëgg yàlla nee def nga ba mu baax macha allah. bëgg yàlla ndeysaan ñu ngi koy kontaane. mais moom yi muus na de bëgg yàlla. même du am na fulla kii kii am na fulla de. am na fulla loolu dafa neex aussi itam nee na allah. waaw macha allah rafet na trop waaye. ndeysaan ndeysaan leen fay ndax kenn bu commentaire sax daf may daal di neex pour ñu koy tontu mhm. na day am solo Ousmane mhm. euh, Sénégal dafa neex mhm. te jàmm ji fan ku ko bëgg a yàq rek gis nga doo gudd fan bala ku ko bëgg a yàq yi da ngay évacuer yow daal di jàll dem ba fee daal di koy tënk mu doon ci benn weer doon ci benn semaine yëpp programme yëpp booy xool daanaka génnul génnul génnul février ak mars kon lépp Sénégal la te distance bi amul matul weer ndaxte Ousmane heure bi daaw ñu ngi appel yàlla wane fa kiraama bu doy bi mu fa wane ma daaw lan moo génnoon yoof daaw géej maam Seydina Seydina Limaamu mhm. dafa génn ci ci weer bi mhm. ñëpp daal di tiit daaw boobu sax corona bi amul defe naa léegi est-ce que amul quatre ans ñëpp daal di yéemu ci yàlla mhm. euh, daaw mayaa nee na kenn du soxna Mariama sama sama maman bi ndeysaan mayaa euh, dafa baax amal jàmm maya sa doom la ah, ah man maay maman Sénégal. ndeysaan man maay yaayu ñëpp yaay xale yi maa saf xale yi saf mag ñi. maman Zante. Eh, eh, ndeysaan maa ngi leen di xoolal. <laughs> Eh, daaw yàlla wane fa kiraama jën yu yooyu nu tuddati. dofee dofee yi daal génn mm-hmm. ñëpp daal yéemu. Mm-hmm. kon nga xamante ne mag ñi lii dañ ko fee tàggat te dañ ko fee jëmbat te dañ ko fee jiw te lu fi waay jiw rek moom la la yàlla di wan saa yu wootee yàlla wane fa kiraama mm-hmm. kiraama bi waneen bi ñuy waneen day yéem àddina mais nit ñi yéemootuñu Ousmane mm-hmm. na nit ñi yéem leen moo yombatul waar leen yombatul mm-hmm. ndaxte boo leen jëmal ci a ruubee te fekk ne yàlla rek a fi am mag ñu baax ñi yàlla moo leen fi samp këru mag ñi këru diine yi Ousmane këru diine boo dem rek la fi seen maam yi bàyyi woon lañ ñaan yàlla bu mu mujjee puso bi mu réer say loxo puso yi nag ko commencé dox seen waar mhm. sëñ Mountakha Bassirou Mbacké mhm. démba ca Mbacké démba nga jóge Touba Ousmane mhm. sëñ ñaan dugal fa alalam dafa sax ci xol loolu muy def noonu maam mu dëddoo gis nga taxawaayam fii si Sénégal ñu meloon da daan wax ci kër diine yi di ci jëf di ciy wax di yëkkati alalam yal na mhm. yàlla yokk leeram tasaat ci barke mhm. kon Sénégal gii képp koo xamante ne bëgg nga fi jàmm jàmm rek fi mën a am ndeysaan Ousmane ku fi bëgg jàmm jàmm dafay am ku fi mhm. bañ jàmm jàmm dafay am yàlla moom moo fi fi wàcceel ay wàlliwu yàlla. ndeysaan ba tey wàlliwu yooyu nag ñoo téye Sénégal. ndeysaan bu dul woon li yàlla def ci ñoom kon Sénégal duñ nekk ci jàmm. Mhm. kon Sénégal duñ nekk ni ñuy dundee ndax Sénégal dund fi dafa metti de. Mhm. am fi jàmm yi dafa metti. Mhm. mais toujours rek yàlla ñuy jàppale. yàlla ñuy suturaal. ku sa kii xool këru diine bu xew Ousmane. dafay tuur ci ay millions ay milliards da xam ni mu toll. te saa yi ñu a xew la yàlla wàccee ko daal di ko kon yàlla moo jàppale mag ñu baax mm-hmm, mm-hmm. ndax man li ma jaral bu Tiwaawan wootee ma dem tuub fa sama ñaq waaw bu Tuubaa jotee Ousmane tuub fa ñaqam waaw bu Laayeen xew la taala tuub fa ñaqam waaw dañoo xam fu xaalis boobu di jógee dañoo xam loolu fan la ko yàlla yàlla fan la ko fan la ko yàlla nam ma yiw mm-hmm. moo tax lu waaye am rek bu sa bés xew la def fa sa doole def fa sa ñaq balay ren di déwén da ngay jokk Mm-hmm. yàlla daf lay gën a jàppale daf lay gën a yokk mm-hmm. ndax sa maam yi woote mm-hmm. nga jël sa alal alal dafa neex dafa sax ci xol la sax ko di nga fay tuur yi ñëw bi jotee mi ñëpp génn seen kër yi waaw waaw bi jox gan yi boo demee Cambérène boo demee Yoff ma nga yéem ci yàlla defar ñu ngi macha allah waaw une avant wut mois avant wut xéewal wut teraanga gis nga jaamu yàlla yàlla ngi fépp Ousmane yàlla ngi fii jaamu yàlla ak a yomb yàlla ngi fépp jaamu yàlla mm-hmm. ci geste la yàlla di fay mm-hmm. yi jëf la yàlla di fay mm-hmm. yéene la yàlla di fay kon ku jëf lu baax ñu jëf Mm-hmm. ku mën def lu baax na nga ko def mm-hmm. mais bu ñu ëppal mm-hmm. ndax Sénégal yi dafa ëppal yoof kenn mosu fa tëgg sabar mbala kenn mosu fa xeen dënd te daaw defe naa am na fa lu mosul nañ euh, nañ di wane def lu baax ndax def lu baax rombul Ousmane yàlla lañ fa woote nga woo indi fa yàlla diine lañ fa woote nga indi fa diine salaam lañ fa woote nga indi fa salaam foo xam ne yàlla kasee fa am loo xam ne sa papa dëdd na ba taw nam tool def ko fa sa ay nijaay noonu sa ay maam noonu kon defaraat toogaay yi bis ba daa woote de yàlla la woote mhm. te maam la mhm. laay kon nag ñëpp dem wuy mhm. a dem dem si euh, doguma la sax waaye xam nga ñun yàlla def na yoof la ñu dëkk euh, appel fekk nañu fa fekkete ñu fa fekkete fa waaw mais taxawaay bu am solo am solo am solo ngay gis ñu taxawoo ko mën naa ni euh, un mois avant wala euh, une semaine avant di nga gis jigéen ñi nga xamante ni nii ñoo dëkk ci tund woowu dinañu takku mobiliser wu euh, bale koñ yi bale mbedd yi defaraat bu mu jekk ku ci nekk gën a jekkal jekkal sa kër yi yeesal wàcc lal yi jox gan yi ñu toog jour appel bi tam la même chose ñoom ñëpp noonu lañ koy defee ku ci nekk boo xëyee yére bu weex ngay sol ñu dem wuy ji ñaan yàlla def jàmm ci réew mi donc lu mel noonu noonu su amee ci réew mm-hmm. euh, Mariama képp ku fa ñëw te di gan xoolal na nga xamante ni noonu la waa dëkk bay doxe nga doxe ni mm-hmm. euh, ndax jikko borom moom ba ci pax mm-hmm. waaye booy génn sa jikko da koy ba sa kër gi boo ñëwee na nga fekk doomu aadama yi mel ni nga mel ni ànd ak moom boo delluwaatee sa kër nag bu la neexee mën ngaa jëlaat sa jikko nga defaat ko sa bopp parce que ku nekk ak sa jikko waaye am na ci bés yoo xam ne ni su amee ngelawaay lépp loo xam ne nii borom dëkk baa nga koy tere ca dëkk ba na nga ko ko bañle mm-hmm. ndax loolu moo di wàllu gor kon yàlla ñu yàlla gën a dooleel gën ñu kàttanal euh, ba lii nga xamante ni moom la ñu dëgmal muy appel bi euh, fu ne la di jóge nag di ñëw mm-hmm. am na ñoo xam ne fi nii ñi ngi ci yoon yi ñii nga jóge Louga ñii nga jóge Kaolack ñii nga jóge feneen ak feneen ak feneen yàlla teg leen ci yoonu jàmm mm-hmm. ñu ñëw ci jàmm egsi ci jàmm appel ci jàmm kenn ku ci nekk delluwaat sa kër ci jàmm ak salaam Amina ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax jërëjëf Euh, yaayu bébé awa merci beaucoup jërëjëf gis nañu kër yi mi ngi nice tapote leen tapote leen live bi ndàndaar bi nee na ngeen di tapote live bi <laughs> tapote leen live bi muy yaatu. yow Ousmane. <laughs> waaw sama maam diggante gaay ak mbir loo xool wàllu lañ dëkk. cum dégg nga loolu. <laughs> sama maam moo tax ba mu waxee ndar na damay kontaan ndaxte man. maay borom gaay dëkk maam Alpha Mayoro. Mm-hmm. man fa laa bokk Ousmane. tubaarkàlla ma waxee ndar bi damay daan tubaarkàlla ay mbégte la xam nga ceet gu ànd ak ambiance loolu fii rek la am tubaarkàlla yàlla la yàlla gën a dolli jàmm ndeysaan ndaxte jàmm dafa neex Mariama du dul jàmm jàmm ko gën xam nga toog di ambiance fu ñu la fekk ngay ree di kaf di belli euh, loolu dafa neex euh, te te te loolu ab taalibi rek rek rek rek moo ko man euh, kon yàlla yàlla gën a dolli sutura si yokk xewal yi ay ca kon mbokk yi numéro baa ngi noonu 77 la 060 43 10 77 060 43 Euh, képp ku nga xamante ni nii yittewoo nga ko mën nga cee woote euh, bu la neexee mën nga woote sax léegi euh, daañu la fixer rendez-vous ginnaaw waxtaan wi incha allah rabi da nga koy jox sa tur ak sa turu yaay bu ko defee incha allah rabi dina la mën a seetal ci kattanu yàlla ak mbaaxam yéen ñi nga xamante ni aussi dana am jafe-jafe ci seen wàllu sëy moo xam nga nekk jigéen gu nga xam ni da nga amee faru rab mbaa nga nekk góor goo xam ne da amee coow rab soxna Mariama am na lu ko ci yàlla sa borom may bu fekkee da toog diir bu yàgg tamit Euh, dégguloo al xayri muy góor muy jigéen yor na fi ay bagage yoo xam ni fan yee passé génne na ko ngeen gis ko am na fas goo xamante ni dégg naa bala moo tilim euh, nga dégg al waaw te loolu moom moom la ñëpp yi wër boo bana ay mbay kii ku mu doon kii day bott mu dee la de bagage la de uh-huh, dikkal génne génne nga ko ba gaa yi gis ko di gaa yi gis nañ ko ba pare di dikk ci bagage bii nii kii lan na mën a def ci nit Mariama ah, Ousmane bu fekkente ne da nga am oto nga bañ mu accidenté jëlal ma mbott bu dee mi sa biir oto doo mës a accidenté te foo ko sànni foo oto bi baax na foo ko sànni sa oto baax na paan du la sonal hmm. accident du la jaaxalati te oto bu këpp doo ko gis Mm-hmm. te ku ci dugg dina yëg ci bisimilah génn ci alhamdulilah bopp bu dee day toj liggéey Ousmane gis na lii nii boo ko amee mm-hmm. daal di jël suuf euh, suuf suuf suñu saafee gerte nga ko ci nga daal di fàtt fa yàlla ma ñëwaat ma la ñu taxaw dikkal dikkal dikkal arrièral bande boobu noonu sànq nga ne la lii ku ko jël boole koog la euh, ku ko jël boole koog suuf bu ñu saafee gerte suuf bu ñu saafee gerte ba pare ku la liggéey fi dee liggéey bu ñu fekk sa yaram toj na Ousmane moom mii nii moom bopp bu dee ay mbay bu baax ñu ñëwaatam ñu def dikkal Euh, bu fekkee ne da nga napp mbott buy dund bi nga daal di koy raay sa jël hmm. ku la léttati bu fekkee dañ doon jëm ràbb sa bopp sa dootoo nabati lépp dootul safati sa bopp kooku kooku kooku may ko xale jigéen yi nga xam ne nii heure bu ñu léttoo goowe lañuy lañuy lañuy lañuy suur ci seen bopp yi nga ñu leen euh, waxal ma dégg <laughs> nga xamante ne da nga koy jël daal di koy raay sa ni buy dund de bu dee bi wala biy dund buy dund Ousmane biy dund nag dootu la sonal dootoo nabati hmm, mbott buy dund xanaa xam mbott bi mën nga liggéey ba yàq ci nit mën nga cee liggéey ba defar Hmm. am na loo xamante ne soo ko bindee. ndeysaan buy dund bi laa la wax de Ousmane. biy dund bind tur ki bëgg am loo ko booleel maanaam am na ñoo xam dañoo soxla moo ko bu wax lan nga ciy bind. Hmm. bu muuree néew daal di ko ci lamas tàq ko boo koy bi di sedd nit oh! de Ousmane. moom mbott mi nii day toj liggéey tamit. mbott day toj liggéey. day toj liggéey bu baax a baax Ousmane. Hmm. du moom laa la boo ko boolee suufu gerte nga sangoo ko ñetti fan wallaay ku la liggéey dee te ku jégoti ci yow ak liggéey nekkoon sa yaram yëpp da koy faxas. da koy faxas ba mu set wecc. da koy yéen ko dégg de mën na faj ci yow képp koo xamante ni moom tey euh, bëgg naa ñëw fii nii Mariama est dina ko mën a recevoir fii ci kër gi pour defal ko càngat yooyu. Ah, càngat yi ñu mayee ko pour nit ñi def ko mm. mooy gën a gaaw mais képp koo xamante ne bëgg nga am na yeneen yoo xamante ko cee def Ousmane mm. ku sa noonu sonal <laughs> nit xam lan la nga jékki-jékki rek jépp nit di koy tuumaan daal di ko yàq ci réseaux sociaux yi mm-hmm. yàq ko partout dans mu man nga ma ko def mbott mu dee bi laa lay kalaamee barki say ginnaaw ma moom mbott mu dee mi 24 heures mu fajal ma sama soxla ci li ma bëgg a def de xaw ma nag <laughs> hey mbay nit ñi dañoo soxor nit ñi dañoo soxor léegi tuumaal <laughs> ah, ah, <laughs> en tout cas de ku li aj ku ajee ku gën a fort kon mbokk yi yéen a ko déggandoo mi ngi noonu soxna Mariama si mu Serigne ah, Babacar si yor na ay bagages naa leen li mu nëbb moo ëpp li mu fësal euh, ci seet la yam ak yéen rek ci TikTok bi waaye képp koo xamante ni nii bëgg nga gis leneen lu bokkul ak lii ngay seetaan da ngay jël numéro am muy 77 060 43 10 77 060 43 10 ginnaaw waxtaan wi boo ko woowee euh, ci kàttanu yàlla euh, dina am wala sax nii nii nii euh, képp ku ci woote ku nekk rek waaw mën ngaa mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa laa mën na laa bégee bu baax a baax a baax a baax waaw loolu moom ay tawféex lay doon gaa yaa ngi tàppate gaa yaa ngi may dóor kër yi fi nii téléphone bi ruus na de waaw xonq na tooy kër yaa ngi ñëw ndax Ousmane nee na ñoom ñoo ñu bëgg rek mm-hmm. te saa ñu koy tàppate rek day tax ligne bi gën a neex ñu seet ba mu daal di wasaa ndax mm-hmm. bi loolu rek laay gis mm-hmm. ndax nee yaram bi daal daal di tàng Ousmane alhamdulilah nee moo ngi lay siyaare waaw alhamdulilah nee na mu ngi lay trop gars yi dañoo neex de ay ah, bëgg ah. yàlla xam nga alhamdulilah barkala gaa yi gaa yi gaa yi gaa yi muus nañ nag de gaa yi nañoo yeewu <laughs> ah waaw waaw waaw waaw dugal man gëm yàlla waaw gëm yàlla <laughs> bàyyi gëm yàlla <laughs> bàyyi gëm yàlla ngi noonu gaa yi benn Fall benn Fall ndeysaan ñu ngi lay bëggee tamit bu baax a baax alhamdulilah benn Fall tubaarkàlla ñu ngi lay bëggee yaayu bébé Awa jërëjëf yow tam ñu ngi lay kontaane bu baax a baax gis nañu kër yi euh, jërëjëf Amina Euh, ci dugal bi ngee dugal numéro bi tubaarkàlla ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ndeysaan waaw moom it mi ngi koy mi ngi koy yaatal bu baax a baax ah, ndaya ñu ngi lay béggee bu baax siyaar naa la maman jërëjëf ndaya ñu ngi lay béggee ñu ngi lay kontaane yow tamit bu baax a baax ak sa bay sa ci café gi jërëjëf yow it yàlla na la yàlla defal jàmm euh, tawfeex ak taysiir ci ci ci ci ci ci ci café gi <laughs> ah mi ngi noonu ndeysaan kon Mariama su ko defee Euh, bagage yi nga ñamaloon gaa yi dafa mel ni euh, wala li ci des ñu dëxañ ko ba ci kanam. donc ko tan boobu noonu est duñu xaar ba ci kanam. ay bagage la de moom. xam nga tan moom dafa bari bagage. Ah, te xam naa ne boo ko génnee. gaa yi yëpp dañuy taxaw. tan yëpp. te kenn ah. tan bu dee ku ko kenn soxla ko. tan bu mbay lay ñu <laughs> waaw ñu xool euh, quelques internautes rek après ñu mën a dellusiwaat tuuti ci euh, li nga xamante ni nii moom moo di waxtaan bi euh, tey moom Mariama dafa mel ni tey tàngam dafa yaram. Mhm, mhm, ah? mhm, sa tàng mooy yaram wala sa yaram moo tàng. weer ah, <laughs> waaw macha allah donc kon ñu def nii rek xool ñenn ci internet yi ñu jël leen bu ko defee. Euh, ci kanam tuuti ñu dellusiwaat nag ci euh, waxtaan bi gën a yaatal am na fi ay bagages yoo xamante ni mi ngi fi képp koo xamante ni yittewoo nga ko rek mën ngaa daal di woote ci numéro bii di 77 060 43 10 77 060 43 10 loolu mooy numéro ba salaamaaleykum salaamaaleykum Serigne Mbaye may génne dugalaat keneen de salaamaaleykum. salaam salaamaaleykum allo ma jël kii kon salaamaaleykum waaleykum salaam salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum waaw soxna si na nga def. allo allo waaw yow soxna si fi nga nekk dafa xaw a am bruit doo doo déplacé wu tuuti mu mu mu mu mu mu gën a leer mu ah. mu mu yaatu mu yaatu eh. soxna si allo barke sëñ bi bàyyi caay mbay réseau bi neexul kay réseau bi neexul kay hmm. collection bi même tapoté live bi mu yaatu collection bi mooy daw collection bi mooy daw hmm. collection bi mooy daw bu collection bi dawee ñëw ci waxtaan bi mu yaatu ñu ñëw ci dunkutan allo allo allo allô allô oui ça va salaam wa rahmatullah ngi sant alhamdulilah yow nag alhamdulilah yaa jëf waay nan la ak ati fu mu toll tur bi nan la ak ati fu mu toll Aminata Kane vingt cinq ans Kane Poulo. waaw. ayca Mariama. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Kane Diallo Kane waaw Kane Diallo Diéré. Kane Diallo Kane Diallo Tukulóor. Kane Poulo. allo nga dëgg Kane Diallo Diéré. Kane Diallo vingt cinq ans. sa fit toogul. sa fit toogul côté timis fit bi day tëf tëfi rek soxna si seet neen sa fit dalul. nee nga dalal sa fit dalal sa xel nee na affaire saytaane ngelawu moo nekk sa yaram moo tax sa fit taal nga def ko ñetti dànk nga daal di koy bàyyi ba mu fenn nga def ko ci siwo ndox yaa na boo paree nga sangoo ndox mi pour wàllu fit bu dalul xel mu dalul nee na ngelawu saytaane dafa nekk sa yaram seet nee na Amina bari nga wërsëg mais wërsëg bi toogul nee na ci kaw gàllaaju ndigg boo xam ne góor dafa la ko jox mais takk gàllaaj daf lay daal di të kan jàlloo seet nee na nga dalal sa xel di nga kontaan di nga ree ci kaw kilo buy allo ah. kan jàll jëlal ma kilo buy nga saraxel ma ko joxal ma ko jigéen seet nee na wërsëgu sëy danga koo am mais pour nga toog ci sëy mën na xaw a jafe tuuti ba mën na tëj sa bopp hmm. mën na la jaaxal mën nga jëflantee góor mais du am suivi nee na soo jëflanteeg góor dangay dem ba ci biir mu daal di lëndëm mbaa mu yàqu kenn liggéeyu la rab nga amee te danga nangul faj sa rab bi rab bi moom moo lay faral di jaxase ba loo dugg itam pour nga échec si day yomb si defaral sa wàllu yaram nga sampaat sa bopp faaw nga samp sa bopp pour nga mën a am jàmm pour nga mën a am ndam tant que sampoo sa bopp looy dugg danga ci ay échec doo ci am ndam danga war a samp te gëmoo dara li nga gëm bariwul li nga gëm bariwul Ousmane jëlal ma keneen mu daal di dem faj rab ay ci jërëjëf dawal fas faj rab ah. boo paree nga wootee incha allah rabbi Mariama yor na ci ay bagage yu doy waar ci kàttanu yàlla dégg nga dégg nga kan kan jàll ah waay kan jàllo waay kan jàllo waay kan jàllo ay mbay mbay réseau bi salaam wa ñoo ngi sant bu baax soxna si yow nag ah, jërëjëf waay jërëjëf gërëm yàlla jërëjëf Euh, waaw dégg nga lii ah, ah, waaw dégg nga loolu yow <laughs> ndeysaan ah, ah tarkala tarkala kenn du yow ndeysaan ndeysaan yow kenn du yow tur la Kumba Fall ah Fall Fall Fall Fall naam Fall Kumba Kumba ati ati fu mu toll ans. 39 ans jëlal Kumba Fall 39 ans. asalaamaaleykum Fall Ndiaga Yaram ñu ngi lay ziar Fall mu yàlla faale. maa ngi lay màggal bu baax a baax soxna Kumba. Euh, gudd fan. gudd fan bu ànd ak ndam ci yow. seet nee na borom 39 ans na nga sant yàlla di julli si Seydina Muhammad te xam ne di nga gudd fan te di nga mucc ci kàttanu suñu borom. seet delluwaat ba tey ne mujj bu ànd ak raw ci kàttanu suñu borom mais xel mu jaxasoo ci biir sëy xel mu jaxasoo ci wàllu sa xel di a tey ci wàllu sëy soxna Kumba. génne sarax pour sa wàllu sëy nga génne sarax pour sa wàllu sëy pour sa toogaay gën neex danga capee fi nga positionné wu baaxul ci te bu continuer noonu rek dangay am essai gu sëy mm-hmm. seet ne dangay am essai gu sëy bu continuer wutal ma sëru rabal même nu mu toll baax na même bu fekkee bu ndaw nga ñaan si yàlla sa soxla nga jox ko jigéen ju màgget nga koy jox pour mu ñaanal sa biir néegu sëy boo ko deful sëy bi day randu beneen daal di ba xam ko ba d'accord jëndal xeeru benn melo nga yeew ko neen say njaboot jigéen ñi mën nañ njëkk mais góor ñi ngay mujjee ci kàttan suñu borom mais règle bu normal lu jàpp ca nàq ba seet ne yaa ngi si lëndëm lëndëm nee xaalis bi de ñëw sa loxo mais du toog li yàqu sa loxo dafa bari mais commerce danga cee nekk mm-hmm. danga nekk ci jënd ak jaay. damaa nekk ci. commerce jënd ak jaay danga cee nekk. dégg nga dégg def jënd ak jaay seet ne nga def jënd ak jaay muy sa liggéey. Ah, seet nee nga daal di koy def moom mooy sa liggéey nee bu fekkee danga cee nekkoon na booy la nga ciy duggaat da ngay génnee jigéen boo ko boo ci duggaatee yàlla dina la ci may ndam mais gis loo xam ne danga ciy loo dugg yi nit mën nañ la cee diigal ngay jaay muy neex nga jékki-jékki rek nit ñee la yëkkati ñoo lay daaneel nee na ba day tëj sa bopp nekk ci jënd ak jaay te demul nekkoon te doxul demul ni mu war a demee mais commencement ba neexoon na neen nga duggaat ci te nga togg benn boolu maafe nee na boo paree raxasu ba yax yi dangay gas ba mu xóot nga daal di ko say sotti daal di koy suul boo ko defee nga daal di koy suul ci kàttanu yàlla loo jaay mu jaar foo waxal mu jaar gis bëgg la ñan tey say soppee tey damay gis ñooy doon say noonu suba te defoo kenn lu bon waxoo kenn lu bon moo tax danga gàtt tànk duggatoo ci yu bari yaayee nee na yaayee ndax te nit mën na la bëgg jàppale la ba fi nga war a baax le ñu daal di mel ni lu la demal sa ay mbir soxna Kumba jëlal ma bale sëgg nga daal di koy dugal ci yoon ndox boo xëyee nga daal di sangoo ndox mi daal di jël bale bi saraxe ko boo ko defee yàlla dimbali la yàlla taxawu la ba jafe-jafe boo xam ne yaa ngi koy dund sa wàllu yaram yàlla dina ko teggi dégg nga. d'accord incha allah. di nga reede te da ngay taxawaay kilifa. mais da nga nekk ci lëndëm lëndëm sa diggante góor ba tëj sa bopp benn ndabu laax boo ko defee jël raxasu bi sangoo ko nga am jàmm waaye loxoom bi ñu téye dina ñëw jàmm di nga ko am te di nga am ndam soxna Kumba di nga jàpp yoon dem tukkee mbirum tukki tëj na sa bopp mais di ci jàpp yoon lii problème génnee ko nga saraxe ko mbirum tukki bi daal di sotti nga jàpp yoon bi daal di koy dëgmal amal jàmm te dund te wér. ayca lem boo paree nga jël numéro téléphone bi incha allah rabi boo ci wootee rek tarkala dina gën a taw féexe foofu noonu voilà soxna Kumba Fall jërëjëf jërëjëf soxna Kumba Fall ay jërëjëf ñu ngi lay kontaane bu baax a baax a baax a baax a baax a baax euh, merci beaucoup Koumba Fall jërëjëf salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay siyaare bu baax a baax naka tawféex yi te tam jaajëf waay jaajëf la ah? dégguma allo. ah nday nday nday jenn borom jenn ak lagan waaw borom jenn ak lagan ah, ndeysaan fanweer ah waaw ah, tarka la dégg nga ah, comme ngi déglu 30 <laughs> ans asalaamaaleykum waaw waaw soxna Ndeye Diène Ndeye may sant yàlla bu baax alhamdulilah at bi toll ci 30 ans borom 30 ans. seet nañu say mbir warul di siiw na programme boo ah. dugg dee ko sondeel nga bàyyi ko mu tàkk ba jeex. nee bu tàkkee ba jeex yàlla dina la dimbali yàlla dina la taxaw jigéen nga mais dangay taxaw taxaw ay kilifa wërsëg bu ñëw mais toogul sa xel dalul sa bopp bi def ñett ñett ñett sondeel nee na sa xel dalul sa bi day faral di méttee côté nee na borom doomu tuur nga nee na borom mi bagage nga da nga fees del ndey nee na borom mi bagage nga de moo tax kilifa dëggantaan euh, moom moo lay àttan danga nekk ci sëy ndey jenn ah soxna Ndeye allo dugg ci sëy di dugg ci sëy mais kilifa moo lay waaw ma kilifa moo lay takk coono bu la takk da deuxième xam naa moo neexul nee kilifa coono bu la takk dina la fase ndaxte danga doon koo xam ne jigéen nga mais boromi bagage nga pour nit àttan la dëgg faaw mu am lu mu xam faaw mu doon boromi ànd ndaw faaw mu doon koo xam ne day yenu ay jaaj mel na yow ku ko def yi takk la te fekk du borom boobu dalay fase bul sonn di nga ñett am ñetti sëy ñetti sëy di nga duggaat ci sëy génn ci duggaat ci sëy sa ñetteel bi sëy mooy toog ndey allo allo ndeya ah? alors tapoté leen live bi Ousmane. tapoté leen bu ñu ko tapoté réseau bi day daal neex. waaw waaw waaw ma nga ca ma nga ca. allo Ndeye bi tey mu demee nii. waaw waaw. na di nga ree di nga kontaan nee sa tur dafa siiw. am jafe ah, nee sa tur dafa siiw. yaa ngi dégg ah tur bi dafa màgg. xaalis buy ñëw sa loxo mais toogul mais fan yi da xaw a tawat bopp bi day metti xol bi neexul ku la dig du la jox di nga yaakaar ni tas bari na mais ki nga tàggalikoo la. dama gis da dëj pour nga bañ a sayaat pour nga delluwaata ak moom da nga ko wan ginnaaw ay mbiram yàqu làmpam fay di nga duggaat ci sëy mais bala ngay duggaat ci sëy faaw nga faaw nga faj faaw nga dem say bagage yi maam dem ñaan lu fa pour yàlla def boo duggaatee mu toog boo ko deful sëy bi day tas ba nga la incha allah. soxna Ndeye seet na ne jigéen nga muy kilifa nga nee na alal day ñëw sa loxo mais du toog wutal lam xaalis nga takk ko sa main pour yàlla taxawu la yàlla jàppale la dégg incha allah rabi ah, Ousmane. na ngay Nday. pour réseau ah, am nga lamu xaalis. takk sa loxo ne joor loolay sa gàllaaj looy dugg mu sotti looy dox mu sotti te yàlla dina la defal jàmm ki lay takkaat sa deuxième sëy du dëkk du nekk senegal bitim réew lay ne tugal te sëy kujje ngay duggaat ñaareel. Ah, bu këppal nga duggaat. léegi da ngay coupé nga duggaat dégg comme ça mu xaw a gën a am tawféex dégg am waaw kay. ñu xool keneen jàll ci leneen tapote leen dangeen ngeen partagé salaamaaleykum salaam wa maa ngi lay delloo siyaar bu baax a baax a baax a baax a baax ah, ah mais ñi ngi tuub ñaata weer nga fi def wax man kay envie jooy rek ëpp naa def di yaay booy yow tamit nag léegi waa jooyal ma xool ma xam nooy jooyee jooyal ma xool yow xam naa ne boo dee jooy non non jooyal rek ma xool ma xam yàgg nga fi wala yàggoo fi jooyal ma xool oh, ah. dégg nga eh, eh, eh, tey la woy <laughs> <laughs> ndeysaan ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di la masawa ñu ngi tuub bu baax a baax ndeysaan ñu ngi tuub de bu ñu sañoon yéen ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mooy loolu <laughs> bilaay ndeysaan ñu ngi ciy jéggalu de ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax baax tur bi na la ak ati fu mu toll. maa sañse baax na. tuddee ko turandoo. Mm-hmm. yaay borom de sañse bi yaay borom de yaa fi la de. sañse yëfam la a yomb. Euh, dégg nga loolu sañse yëfama. day sañse rek Mariama. waaw moom moom sañse moom yëfam la quoi day sañse bëgg solo de ak simeeku man par jour dinaa sol waaw day sañse ba ngàmboo géejam de sañse ba ngàmboo géejam lay def <laughs> eh, tubaarkaal waaw noonu la laay laay walaay fu mu toll ati fu mu toll en ah, vingt-huit ans ok Mariama 28 ans. ak Thomas maa ngi lay ziar di lay màggal borom 28 ans. delloo ziar bu wér. waaw nee na ndam nee na mbég nee na sant yàlla nee xel mu dalul nag da nga toogee ñaari xel sa diggante góor am ñu ne nag day dem am ñu ne du dem ñi naan du dem nag ñoo ëpp ñi day dem soxna si. Mm-hmm. nee mu def ne sa bopp day tëju te defoo kenn lu bon mais chaque jour nit mu lay yéene lu bon loo xam ne doo xam pour lan la ba yenn sa bopp di ci tëju. nee na nga dalal sa xel nee nga togg ñetti ndabu laafu sànqal nga daal di koy tàcc ci diggu kër gi yàlla defal a jàmm yàlla taxawu la Mariama di nga tukki de di nga dem bitim réew nii rek nga ne waaj <laughs> xaaral tuuti. Ah? déet réseau bi la waaw réseau bi daw réseau bi kay tey moom ah. ci ñun la de ah. ayca hmm. yaa ngi dégg léegi naay sax. ayca kon waaw bisimilah. Toma. waaw seet nee na mu def ndam. mu def mbég mu def sant yàlla mais sa xel dalul. seet na na nga dalal sa xel te xam ne jigéen nga mais dangay taxaw taxawaay góor mosoo jàpp yoon dem tukki tugal. Eh, tukki la. da nga tukki bitim réew. waaw waaw mais damay génne kilo comme fumé poisson fumé jën bu ñu lakk wutal un kilo nga saraxe ko nee na yaa ngi ci jaxasoo sa diggante góor ba doy tëj sa bopp daf lay jaaxal mais danga gaaw a mer yaa am xalaat turandoo euh, yor la yombul de turandoo danga gis benn. turandoo dégguma li nga wax foofu nga ne. dama ne da nga diis da rëy da rëy da nga xaw a am xadar turandoo yow laay daal da nga xaw dëgër da ngay gedd da ngay mer da nga gaaw gis sa bopp yenn saa yi nga tiital góor gi ba day bëgg a daw yow yaa tàng yaa am xadar kenn liggéeyu la mais rab bi nga àndal moo lay yëngal. dëgg la Toma nga da fees dell. mais damay gis ne boo meree doo wàcc pour nit wàcce la dëggantaan ay say maam lañ lay taggal de. wàcc leen. ci suuf moom de wàccul. Mariama del wàcc nag. turandoo. waaw. ñi bëgg sa diggante waa ji bariwul ñi ci yàq dafa bari ñi la bari na mais nee na nga dalal sa xel te nga génnee potu tamaate nga sarxe ko mais jox ko jigéen pour yàlla defal la jàmm pourtant sëy bi dina ànd ak mucc ànd ak teraanga ànd ak xewal mais ñi ciy yàq ñi ci xeex bari na mais sa rab bi itam toomaa <clears throat> sarab bi dafa soxor sarab bi dafa la yàqal lu bari lan moo soxor noonu sarab bi moo soxor sarab moo soxor rab bi ah faaw mu ndëppal ko maa nga taggal ko ay maam may la jàmm ah <laughs> ma ne mbaadu mooy yàq lu bari sarab bi VIP la du como doo meree waaji bu la wanee ginnaaw yaa koy rëccu dangay mer léegi rëccuwaat ko day mel ne du yow tayoo li nga nekkee. kon kii foog ñu ndëppal ko ah. wallaahi tayul li nekkee. mooy mer léegi mooy tëgg xuloo bi mooy xuloo xuloo bi a demee mu jooy de. Ah, ah, ah, nga loolu nooree nii. nooree nii ñun nag dañoo diis de ñun téye ñu yombul de. ñun suñuy bagage a diis. turandoo. turandoo. c'est turandoo del faral di saraxe soow mu sedd guy. dañu ko ay glace di koy jox xale yi rab bi di lay may jàmm rab bi may la jàmm rab bi day bëgg koy tagal wante lu neex rek nga bëgg. Oh. doo fekkee lu bon mën nga jël say million jox ko nit ne na gaaw nga jooy mais da nga am xadar. Oh, dina naqari neexul a turandoo. ndeysaan dëgg lii nelaw ci yow saa yi yee war nga doon gaynde mais boo paree léegi hmm. da nga koy réccu faral di saraxa soow ah. turandoo nàkk sa sarax dee ko faral di fonk par altine lundi mooy sa bés hmm. nooy génne lundi yàlla dala ci taxaw defal la jàmm say mbir yëpp lundi la sa sarax dee ko génne lundi yoon booy jàpp-jàpp ko lundi di nga jënd oto góor gi da yëkkati oto bu ñu may la ko nee bala nga koy dawal def ci ay def ci ay bagage boo ko deful oto bi da koy dawal du yàgg mu am ay problème am ay jafe-jafe sa tur bi moo yegg foo xam ne sa jëmm yegg fa turandoo di nga am seex seex bu góor ak bu jigéen di ko bot dinga di am ay seex góor ak jigéen di nga leen boot ci kàttanu suñu borom. Ah, incha allah. ndeysaan. Ah. nee na yaa ngi liggéey ci place mbooloo mais fan yi liggéeykaay bi daa daa xaw a sooxe sa côté boo bëggee wàllu liggéey bi génneel ma fruit banaana mu bari pomme bu bari nga def ko ci leket di séddale di jox xale yi di nga tabax kër goo xam ne ku fa ku ko gis ne est-ce jigéen tabaxu ko nit wa nga c'est loo am jox ko nit ñi te toog mu lay gënal nga am téye. ndeysaan. am jox bala amagoo teraanga nee na nit ñee tax mais li dem day ñëwaat bul sonn mais mbirum jënd jaay boo ci nekkee du dem day échec am nga ñaan waajur te xol bu rafet nga yor tëndoo <laughs> bul bàyyi yaram bi cat daf la sonal moo tax sa yaram fañe dafa diis gann nee na cat dong la dégg nga nit jàpp la ci liggéey yombul nit mën na la tudd ci sëriñ mais pour ñu jàppale ci dara yombul tooma yombul nit pour ñu jàppale ci liggéey da koy waaj waajaat ko doo n'importe qui mm. doo como doo cuune doo como doo cuune mm-hmm. mais chéri boy mais chéri boy yow après dañuy jël numéro bi nga woote ji. kon kay na lay taggal say maam. waaw moom sama chéri la waaw sama chéri la gars moom sama chéri la. us yombul am us. am na réew yombul de. ndeysaan. Oh. dama doon tester mhm. mhm. lay def noonu ngay def noonu ngay def chéri sama chéri la. yow jëlal jëlal numéro bi rek après nga woote dégg nga ah. ay ci jërëjëf yàlla yàlla def jàmm ci yow ndeysaan ah, tubaarkàlla mu ngi noonu. jërëjëf jërëjëf soxna Mariama ndeysaan yal na yàlla yal na yàlla yokk sutura si waaw soxna Mariama si mu sell waaw waaw moom gis naa ne euh, sa sa tàng dafa yaram tey waaw loolu moom loolu moom gis naa ko bu ñu ko kii mayee bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko moom mii mayee nii def yii ah. tamit salaamaaleykum allo. maa man maa la wax salaamaaleykum léegi nga may tëb. yow yaw yow man maa la wax nga tëb ma jàll ca Mariama yow li mbaa jàmm la. ah waaw yow tam yow kay yow kay yow kay yow kay yow kay def nga def nga lu la neex. <laughs> amu solo jégalees. naka taw féex yi. maa ngi lay delloo ziar ma chérie yaa ngi ci jàmm ah, macha allah jàmm rek. jërëjëf dalal ko. waaw waaw mu nga noonu de. <laughs> us mhm. la ak ati fu mu toll moom dafa leen daa yàkkamti de moom xam naa ne daa yàgg ci kër gi ñaata weer nga fi def. <laughs> asu waaw moom bu yàgg yàgg tur ci biir. rek la ñuy def ndeysaan allo Asu. naam ñaata at nga ni. allo waaw ma ne ñaa ati fu mu toll nga ni. 34 ans. waaw. 34 ans ok 34 Asu Saña 34 ans asalaamaaleykum Asu ñu ngi lay ziar alhamdulilah soxna Astou borom 34 ans seet neen nga jënd xaru benn melo daal di koy yeewu boo yeewee xaru benn melo bi lépp loo xam ne yaa ngi ci doon dugg mu am tagga pem bi yàlla dina ko sotti saañaar nee taxawal ndam taxawal mbir taxawal sant yàlla ci yow nee dangay jékki-jékki jaxasoo seet nee na ngay dalal sa xel nee na doomu tuur nga itam nee na mu taxawal góor gi soltan yi jege la lool lool lool kooku sàlla la Astou góor guy soltan yi am da tani boo xam daf la jox bopp kuy sol trim góoru ñaari tubéy nee sa borom ah sa borom kër la nee na góoru ñaari tubéy boobu nee na saa yi mu jox la bopp yenn saa yi sa diggante ak moom day am lu ci dox neen te ciy dox mooy yàqu-yàqu lëndëm lëndëm gàllankoor te danga ko jig danga nekk ak moom boo xalee yàlla xam ne saa yu la joxee bu yeggee am lu ëpp li mu la jox saa yu la bu demee liggéey wàllu liggéeyam am problème am ay jaxasoo mhm. moo tax yenn saa yi danga koy yéem yaay sëriñam bu lay jox nopp bu baax bi dina am ay millions yu dul jeex mais sa diggante yaa ngi li muy lëndam bari na. li ngeen nekk ci ay coow bari na nekk ci ay problème day bari ndax lan moo tax dañoo foog lu jox lu mu xam wax la di wéy yàlla bu ko saay saa aso. Mm-hmm. <laughs> li góor di wéy. yàlla lool lool mais saa nga toog mbir yi jaxasoo. Mm-hmm. aso sa règle normalul seet nee na nga fexe génne kilo yàpp nee na digg li day faral di jëm wàcc ci digg ginnaaw gi diggay bi place boo xam ne jënd ak jaay. mais wàllu place boobu mburaatee bu bari ngay defar nga saraxe ko mais ci daara nga koy saraxe boo ko joxee xale yi nga boole ko ndox ak sa place bi loo fa jaay mu jar loo fa defit yàlla daal di koy ful dama ne <laughs> nga defar mburaake bu bari yaa koy dëbbal sa bopp buraake bu bari na neex na sax suukar te na bari nga joxe ko ci daara ak ndox mu sedd bu bari di nga ubbi place di nga fa def jënd jaay te loo fa jaay mu jar maa naa na tige dege ji saf saf ci buraake maa saf ci buraake mi buraake daa war a saf daa war a saf nga toog ba sant yàlla moom laa la wax man la dëbbal buraake yaa koy dëbbal sa bopp boo ko de sa bopp nga boole ko ndox nga saraxe ko ci daara boo ko defee boo ubbiwul place woo ma ci loo ma ci laay bi nga ne ma li ma waxoon gisuma ko boo ko defee bu fekkee dafa dëgg day yomb te di nga ubbi place bi di nga fa jaay jaay ma jaay ma la sonal sa jëkkër bu loxoom jógul ci yow daf la dëj pour doo mën a def dara soo doon dox dara da nga koy fàttee nekkaat ci leneen dëj lañ la def sa jëkkër dafa fiir sa jëkkër dafa fiir waajee fiir yaa may waa ji fa fiir moom moo la dëj dëj dëj bi nag lu njëkk la ca njëlbeen dem na ba ci biir mu réccu ko ne dëj dëj boobu nag moom moo la téye ba looy dugg du sotti looy bëgg a dox ci wàllu commerce du sotti ba yow sa bopp daf lay jaaxal seet ne nga génne ma set saabu nga saraxe ko pour wàllu yaram bi nga xam dañ la dëj yaram bi diis daal di mën a dañ asu nga mën a nekk ci jàmm mën a ubbi place bi sëy mbir daal di dox boo defee li ma bi dina la sonal asu njaay ma njaay ma ana sa doom bu góor ah, ah? nee nga daal di koy jàngal alxuraan dugal ko alxuraan bis bu jàngee alxuraan dina tekki dina faj bu mu gàccee dina tekki dina la jàppale te dina la yóbbu foo xamante ne barki alxuraan di ne rëccu mu li ma yóbbu sama doom bi dina tekki te dina doon kilifa mag doon kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan maa la wax lii. cay bay. Mhm. asul. bul sàggan ci alxuraan nga njëkk sa dënnu doom bu njëkkee ci moom tur bu màgg la yor barki Seydina Muhammad di nga dund ba kontaan ci moom te lépp loo sonn sa sëy bi dañ cee sonn dañ ko jihaade mais bàyyil fiir bàyyil fiir boo bàyyil am jàmm dégg jàmm nekk ci jàmm nekk ci salaam saaña asu ndeysaan est-ce de mariage du <laughs> nga nag yegg nga yegg nga asuma ah, dimbalee la dara. jërëjëf waaw kay jëlal numéro bi nga woo ko après ngeen waxtaan dégg nga. lépp lu la metti woon dina la neex incha allahu rabbi ah. bu soobee naa Tabaraka dégganteel ak moom rek dégg nga jërëjëf euh, ma gestu xool ñi nga xam ñoo nekk ci YouTube bi ñoom tamit ci lañ bokk euh, waa TikTok ma leen ma tuuti waa waa YouTube bi ñoom aussi ñi ngi ñi ngi ñi ngi laaj soxna si ñaata lay seete Euh, képp koo xamante ni nii euh, bëgg nga mu seetal la dangay woote ci numéro bii di 77 060 43 10 ñu baamtuwaat ko pour ngeen bind ko yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci euh, TikTok bi ku ci mel ni Thierno Bitey ak Ndoy mami ah mami Ndoy ñu ngi leen di bëggee bu baax baax ñu ñuy bàyyi xel ci YouTube bi képp koo xamante ni rek yi teewoo nga ko numéro bi mën nga koo jël boo jëlee numéro bi incha allah bi moom dina la wax lu muy seete. numéro bi 77 la sero 060 43 10 ñu baamtuwaat ko 77 060 43 10 jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam yéen nekk ci YouTube bi euh, waa Salam Vision ñoo nekk foofu noonu ñooy doxal mm-hmm. ma dellusiwaat ci gars yi kon ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci ci TikTok bi mm-hmm. voilà di leen kontaane bu baax a baax nag euh, ba tey yéen ñi nga xam yéen a koy laaj tamit mën ngeen koo jël benn la rek benn numéro bi la. mooy 77 060 43 10 taxuwul rànduwul képp ku ci woote incha rab bi dañ la jël léegi nii nii nii nii cib gaawaay mhm. nga déggante ak moom rànduwul taxuwul mi ngi noonu ngeen gis soxna Amina di ko di ko di ko di ko partagé ci live bi Amina jërëjëf ñu ngi lay kontaane bu baax a baax mhm. euh, ci ni ngay partagé euh, numéro bi ma nga noonu voilà jërëjëf ñu ngi lay kontaane bu baax salaamaaleykum. yaaram na nga def. ñu ngi la koy delloo alhamdulilah sant nañ bu wér a wér a wér a wér. delloo nañ la ziar bi bu baax a baax a baax a baax naka mbokk yi. <laughs> la dëgg la ñu ngi ciy bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. ndeysaan. ayca tur bi euh, nan la ak ati fu mu toll. Abdoulaye fay 36 ans Faye Biram Penda Wagan. <laughs> waaw waaw xa gis Wagan. Mhm, tarkalla mm, ah, gi la. kon <laughs> ah, yu Faye Faye la wax de ah. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ndeysaan xanaa waa la mbokki euh, dëkk ba nu mu tuddati booy ñëw fii. Bargny ah Ba Jandeer ah côté waaw côté Tëngéej waaw bari na ñu am. Jandeer euh, moo nekk. Euh, côté booy dem Thiès yaakaar naa ah. waaw Sangalkam zone boobu noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw Jandeer ak Bargny ñooñu am na ay lébu yu sant Faye. Mm-hmm. Euh, allah sëñ bi Faye. sëñ bi Ablaye réseau bi dafa neexul foofu wala yaa ngi dégg waaw waaw waaw da ngay déplacé wu tuuti rek ok waaw nice wul soxna Mariama maa ngi bi yaa ngi ci jàmm waaw ñu ñaataat nga am 36 ans euh, bismillah borom 36 ans seet nee na bari ah. nee na nee na ba nee na di nga amee xaalis nee na alal di nga ko bari macha allah mais ci biir alal bi sa loxo bee bënn ba lu ñëw day daal di yàqu sa loxo mën na la jaaxal mën na tëj sa bopp mais mais del dalal sa xel nga wut basan wutal basan basan ñetti lem-lem nga saraxe ko ci jàkka boo ko defee loxo bi bënn maanaam dina bàyyi sëñ bi ñaame dégg nee na si sa wàllu liggéeykaay day dox tey suba mu mel ni mu xaw a taxaw sëñ bi day dox ba nga sant yàlla daanaka sa liggéey bopp nga yor mais wàllu liggéey bi day xaw a lëndëm dafa am ñooy liggéeyandool mais sa liggéey tey wax ne ne sa bopp day tëju sa wàllu liggéey day ba nga xam kontaan nga jékki-jékki nga jëflanteeg nit nga commencé moom dem ba ci biir dangay commencé ak nga jëflanteeg nit ba yaakaar ci ne di ngeen continuer mais continuer bi mooy doon problème sëñ bi defaral sa wàllu yaram yaram bi am na ndomba bu am pettaaw am na bu am seetu boo doon takk mais ndomba bi dafa la réer seet nga nga wutaat yeesalaat say cumukaay cumukaay yi dafa toj say bagage dafa yàqu sang bi. dëgg nee na maanaam bu fekkee mbër nga dañ naan la sa ngemb dafa toj sa ngemb dafa tas nee nga defaraat sa cummukaay ah. nee na ndax position bi nga féetewul dafa xaw a doy waar. nee na fi nga ah. féete si sa wàllu liggéey da ngay wax ak technique ba par nit suufu la mbala nit di lay jéem a ronu mooy waral yaram bi dafa xaw a tëju faa nga jóg si sa wàllu yaram nga wut ay ñaan boo ko wutee yàlla dina la dimbali mais génne nga lii tëru diw ñor nga saraxal ma ko sëñ bi di nga mës a seex ñaari yoon di nga mës a am ay seex te doo góor benn jabar ñaari jabar ngay am ci sa dund. ah amiin waay wallaahi. <laughs> Ah, waay ñaari jabar ñaareel de ci sa dund. ñaari jabar ci kàttan suñu borom suñu a boole kër bés boo leen boolee kër sa kër tas sa njaboot ñaari jabar di nga leen am sëñ bi mu taxawalaat ba tey xaalis tànte nga sens pour tukki mais sottiwul sëñ bi fii di fi am alal man maa la wax loolu sa wërsëg a ngi fii te di nga fi am alal yaram bi moo dese neex am na biteel am na biteel boo doon raayo jeex na seet ne fi nga positionné ak fi nga dëkk da bari ñu lay bàyyi xel moo tax faaw nga trop mystique sa position moo xaw a métti ba pare nga doon yaakaar yaa ngi Espagne mais sa de fii fexeel wut doo ci jëmbat bu fexeel wut loo fi def boo wutee loo fi def yàlla dina la dimbali ndax lan moo tax loo fi war a def maanaam nga wut bikit ma la wut fi magasin ma la di ko fiy liggéeyee boo demee di nga dem ba dootu toogati Espagne di nga dellu si fii Sénégal Mm-hmm. neen nga fexe def business boo xam ne fii lay doxee boo ko defee yàlla dina la dimbali moo xam même bu mu doon mbirum oto bu doonee mbirum weñ rek da koy réccu bu doonee mbirum oto sa xaalis dafay yàqu day tas nee na bu fekkente ne wàllu investissement jaay mbala jënd mbala loo xam ne dina la jural xaalis boo ko defee yàlla dina la dimbali sañ bi dégg nga mu taxawalaat ba tey si sa wàllu liggéey alal ji day ñëw mais toogul sëñ bi da nga nekkoon ci tabax dëgg la dëgg la waaw waaw mais dafa mais dafa xaw a taxaw pour l'instant ceebu yàpp benn bool moom ngay togglu mais na am ginaar nga woo ay xale na ci góor ñi ëpp nga daal di koy taaj buñ ko lekkee rek tabax bi dina continuer te doo tabax benn doo tabax ñaar dina ko ëpp ci sa wàllu dundoo nee na mu taxawal ne sëñ bi looy nekk dee ko nëbb muy taxawal yaram biir dafa diis gann gann gann yenn saa yi dara doo ko mën léegi dimbali dëgg mooy sa waajur mooy sa sëriñ loolu rek a la jàppale bu dul woon loolu kon heure bi sëñ bi day sooxee mbir yi day xaw a lëndëm mais sa waajur mooy sa sëriñ te boo gënee góorgóorlu si sa diggante ak sa waajur yàlla dina la dimbali yàlla dina la tax wutal ma ñetti kol yu weex dafa am këyit booy toppatoo xaw na dëgër ci yow wutal ñetti kol yu weex nga saraxe ko mais jox ko jigéen ju mag nga koy jox ñetti kol yëpp nga koy joxandoo yàlla taxaw la yàlla defal la jàmm sañ bi hmm. même bu fekkee dem nga bitim ñibbi si fii liggéey fi loo xamante ne dina la reporter alal ju bari sañ bi mais li ma gis li ngay njëkk liggéey pour nga mën ci am xaalis damay gis mën nga tabax kër luwe ko mën nga éppi magasin jënd ak jaay mu dox yàlla dimbali la ci mais doo liggéey ak n'importe qui ndaxte bokkul nit ñi jikko sa jikko ak jikko ci nit ñi yor mën na am différence rawatina ñi nga xam ne ñoom ngay gën a wóolu chaque jour dañ lay tromper chaque jour dañ lay wor. Mm, mm. mais pour nit wor la yomb na trop si sa dund te xol bu sell xol bu set moom mu koy faral di waree sëñ bi. Mm. génne ma si am na xaalis booy xaar mais jotagoo ci génnee ma juróom-benni koko nga saraxel ma ko doomu koko juróom-benn boo ko joxee xale yi ñu daal di ko toj nga xaalal ju bari dina dugg sa loxo sëñ bi alal ju bari xaalis bu bari dina dugg sa loxo mais jàmm la mbég la teraanga lay doon ci yow mais tubaab daf lay gis rek topp la bëgg la boo moytu sa ñaareel der bu weex lay doon mhm, der bu bu weex dégg nga ah, ah, ah. mais sa yaram diis na trop. génneel ma ginaar gu xonq nga saraxeel ma ko joxal ma ko silmaxaa boo ko joxee yaram biy diis bi dina bàyyi sëñ bi mais cat mooy diisal sa yaram nit ñi foo tourné diw diw diw sa tur moo siiw tur bi moo màgg bul tax ma wax la li may de sa xaw na yàgg sax yor naa ko contact bu yàgg sax yàgg. Hmm. Ah, waaw da nga koy jëlaat après da nga koy jëlaat nga nga nga nga envoyé ko message wala. nga woote rek boo wootee incha allah rabi daañu la fixé rendez-vous incha allah. message incha allah. ok boo ko boo ko envoyé message rek après di ngeen déggante dégg ah? mm. ok jaajëf jërëjëf Abdoulaye fay jërëjëf ñu ngi lay kontaane bu baax a baax a baax jaajëfati merci beaucoup aja waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay siyaare bu baax delloo naa la ko naka tawféex yi alhamdulilah tur bi la ak ati fu mu toll Khady Thiam 39 ans ay ci jëlal Khady Thiam Thiam Babel Demba Thiam wala Thiam Demba ak Bokar mhm, waaw maa ku yàgg lay jël macha allah waa soxna Xadi. voilà borom benn boolu fonde tàj ko nga saraxe ko sa yaram neexul yaram bi dafa diis. Mm-hmm. mais sa yaram dafa suutante Xadi. yaa ngi lay dégg. seet nee na yaram bi dafa diis toggal benn boolu fonde nee na boo pare raxasu bi nga jël ko sangoo ko.

yàlla doxal sa ay mbir yàlla yëkkati la defal la jàmm mais dëkkuwaay di nga dëkk ci watu ndox xadi di nga dëkk ci watu ndox di nga fa dëkk neen ci biir watu ndox boobu nga dëkk say bagage ñoo la fay puus neen boo dëkkee ci watu ndox yàlla dimbali la yàlla taxawu la mu taxawaat ba tey ni di nga gudd fan mais dugub 7 kilos génnee ko nga sarax ko jigéen soxna xarit Thiam allo. 9 kilos dugub moom ngay génnee nga saraxe ko. 9 9 9. pour wàllu sëy nga ciy ñaan sa digganteeg sëñ bi nga ciy ñaan ñaan ci juróom kilo nee na boo ci ñaanee mbirum sëy bi yàlla dina la dimbali yàlla dinaan taxaw ci am mais del bàyyi di may sa yére boo sol ba pare del bàyyi di jox sa yére boo sol ba pare boo ko bàyyee ndikiwul mën na la yóbbee gàllankoor si sa wàllu tawatu yaram ndax mën na la cee te jigéen mu ngi pexe pour am sa yére mbala dara si sa mosu pour liggéey yére day ci farlu soxna Xadi bu la ko ñaan nga yëkkati lu bees may ko mais bu may loo sol ba pare soo ko moytandiku mën nga am ndox mën nga am gàllankoor sa bopp dafa tëju mais sa xel dalul sa bopp bi day faral di méttee côté xadi guddi say nelaw day xaw a néew dangay nelaw guddi bariwul. nee na mën nga bañ a nelaw guddi mais dangay stressé wu te dangay xalaat rek. nee na xalaat yi ngay xalaat yëpp nag day mel say xalaat guddi gi day ñëw te day jaxasoo li ngay xalaat mën nga xalaat bi tuuti sa xel dawaat dem ca leneen xati génneel ma war nga ak suukar nga saraxeel ma ko pour yàlla génne la da nekk fan yi ci ay jaxasoo nekk ci ay problème nekk ci ay problème yoo xam dafa xaw a lëndam ba mën na tëj sa bopp mën na la jaax xati toojal ñetti nen nga taalu ma ñetti sondeel boo ko taalee dina am loo génn suba nga woo ma sama numéro jëndal ñetti sondeel bi tey nga ndax say mbir damay gis dafa lëndam say mbir dafa xaw a jaxasoo taalal ñetti sondeel am loo génn suba boo xëyee nga fokaal ma ko ma am lu moom koy jënd léegi nga taal ko nga fanaanoo ko nga xool suba boo xëyee nga bokkaal ma sama numéro. nga gént incha allahu jëndal ñetti sondeel nga taal ko fanaanoo ko boo xëyee suba nga woo ko. Ah, jërëjëf yal na yàlla def jàmm ci yow tawfeex ak taysiir ñu ngi lay kontaane bu baax a baax a baax a baax a baax ma nga noonu ma nga noonu de ak sëñ bi bàyyam mm-hmm. li ko mën a ki koy jéem duñu benn mm-hmm. la ilaha illallah seet ak ak Angleterre terre bee leen boole Angleterre ak pomme de terre asalaamaaleykum kii bari nay bagage de allo kii di biir kese la <laughs> kii ah waaw tamit yow na nga def mais maa ngi lay siyaare bu baax a baax a baax a baax yaay booy. naka tawféex yi. alhamdulilah doo yëkkati kàddu gi tuuti nii ah. maa ngi cool maa ngi nice yow nag. alhamdulilah tur la ak ati fu mu toll. Fat Ndiaye Fat Ndiaye 29 ay ca soxna Fatou euh, soxna Mariama lay déglu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi lay ziar yaa ngi ci jàmm bébé. alhamdulilah borom 29 ans ma benn kanaara bu weex nga sarax ko puune yàlla defal la jàmm. yàlla taxawu yàlla ibbil la sa wàllu wërsëg boo defee kanaara bi nga sarax ko puune lépp loo xam ne yaa ngi ko doon dox mbala yaa ngi ko doon jëf te sottiwul yàlla dina ko sotti mu taxawul wàllu yoon boo xam ne dem bitim réew dem tugal day sotti nee na góor daf la jox ay sangat nga commencé ba neex la nga jékki-jékki arrêté ko boo commencé sangat ñaan dëggantaan buñ la ko joxee doo ko sangoo ñett fanta gisoo règle léegi ci biir gis règle boobu faaw nga tayalaat pour reprendre sa ay ñaan moo tax pour nit defal la ñaan dëgg yomb fan njaay seet nee na mu taxawalaat ba pare boo doon fonk sangat fonk ñaan heure bi dépassé nga fii bu yàgg mais sëy mbir day xaw a lëndëm faatu nee na coow bari na temps yi ci yow am ko indi kër gi day benn pulleeg maali boo mënul fokkatu tama nga boole ko benn galañ bu damm neen nga boole ko def ko ci siwo ndox nga sangoo ko ñetti fan nga tojtal li nekk sa yaram am nga tojtalu boo ko deful rek bu baax boo ko deful mën nga échec boo ko deful say mbir mën na sooxee ba tëj sa bopp nee boo ko defee am jàmm nee na am ko indi ko gi jaabaa jolle gi day mel ne pulleeg maali faatu am faatu indi faatu neen sa tur bi maanaam da nga weex donc da nga loo fekkee ñu tudd la ca yaay xorom ci cin daal fa nga dëkk ah, yaay xorom ci cin pour te diir loo fekkee ñu tuddu la loo fekkee ñu tudd la donte ne yaa ngi jéem daw mais mënoo mucc ci nit ñi yàlla moom moo la bindee noonu moom moo la mooñaalee noonu foo turne faatu faatu faatu faatu nee na nga dalal sa xel te xam ne di nga ree di nga kontaan ndam di nga ko am nit ku am sutura nga mais sa xol li muy naqari nee na sa xol mën na di faral di tàng sa xol di naqari ci kaw déception ba sa diggante ak góor dafa da nga ci am déception boo xamante ne déception bu metti déception bu nga jaaxal di may wutal këll këll bu bees sama këll yi law bee di yàtt wut ci benn boo ko wutee nga daal di fexe foofu law bee di yàtte nga tibb ci suuf bi def ci këll bi da nga jënd këll bi boo ko indee nga wut meewu bëy nga wut sungufu xay nga wut sungufu belwengel nga def ko ci siwo nga sangoo ko xay bi wàllu muslaay la belwengel bi day doon bayre boo xam ne day ànd ak xaalis yaa ngi dégg allo allo Fatou nee na boo ko sangoo yàlla dimbali la yàlla muccal la ci kàttan suñu borom mais dinga ree di nga kontaan hmm. seet nee na kuy gudd fan ngay doon Fatou hmm. seet nee na sa mujj di nga dem bitim réew si sa mujjante lu dund hmm. nee mu taxal boo fa demee lépp lu la naqari daf lay wan ginnaaw. te yàlla dina la dimbali yàlla dina la taxaw ca wàllu wërsëg buy ñëw mais toogul xel mi dalul xol bi neexul seet nee nga taal ñetti sonnet nga bàyyi ko mu tàkk ba jeex nga jël rosi gi def ko ci siwo ndox nga daal di koy sangoo yàlla leeral sa ay mbir alal ji ngay xaar daal di dugg sa loxo say mbir mën a dox mën a avancé ci kàttanu yàlla mais feew fekk mag day ko teral feew fekk mag day ko teral booy teral mag yàlla di lay teral nga leen di yëkkati yàlla di lay yëkkati del mustu nag ci saytaane del léemu sa bopp bu fekkee bëgg nga gudd fan bu fekkee bëgg nga mucc da nga aw da nga wex nu yéene woo kenn bon mais noonu privé yaa ngi sa wet ñu ngi la jéem a faqasal pour nga jéem a am ndox génneel ma gloria set potu gloria nga saraxe ko faatu dégg nga waaw saraxe ko boo ko saraxe yàlla dimbali la ba nga def wàllu jënd jaay am ci lu am ci lu loo xamante ne di nga ci faj sa soxla loo xam ne yàlla dina la suturaal faatu amal jàmm te du mu tawee ause ay ja Fatou jërëjëf mën nga jël numéro bi ginnaaw euh, waxtaan wi wala sax léegi nii mën nga cee woote bu ko defee incha allah rabi daañu la gën a teg ci ak voilà jërëjëf jërëjëf yal na yàlla def jàmm ci yow. numéro bi 77 la 060 43 10 77 060 43 10 salaamaaleykum. maa ngi lay ziar soxna si. te moom noonu la yàgg ci kër gi moom mii ah. moo tax mu mere la ba nuyu xam naa loolu ah. Ah. xam naa loolu kay man kay gis naa ni sonn nga lool sax moo tax ma jël la nii laay wallaay taalaay ak sëñ beeg bàyyam bàyyam ci jàmm billaay moom kay dëgg la de waaye am na ñu la fi jiitu nag am na ñu la fi jiitu ñoo xam ne man sax damay rus xam nga yëf yi dama koy topp étape par étape rek

tur bi ak at yi tur bi nan la at yi fu mu toll. Njombe Ndiaye. waaw 33 ans. 33 ans. Mhm. fan ans. Euh, seet nee boobu bu yëkkatiku. Ah. seet nee na da nga jaar am tolof tolof am ay jaar jaar yoo xam ne ñu xaw metti la moo tax say mbir. waaw saa sa situation day tar ba jaaxal la. nee yenn saa yi nga dund ay xat-xat yenn saa yi nga dugg ci ay lëndëm lëndëm yoo xamante ne doo comprendre bala ngay comprendre fekk sonn nga bala ngay comprendre fekk mbëkk nga miir bi daal di ñëwaat yoo xam ne ñoom bi da nekk ci sëy nee na ci biir sëy bi nga nekk neen nga daal di wut sëru malikaan mooy yi ñuy woddoo yi ñuy jiitalee wut ci benn nga teg ci mille mille mille trois cent nga ciy teg nga jox ko jigéen boo xamante ne mat na la yaay mu ñaana la pour sa biir néegu sëy boo ko deful sëy bi chaque jour mën nga di ciy sonn mais doo ko mujjee mën nga di ciy sonn fekk ne jeeg dina bëgg toogee sa place neen ngaa limut sër bi nga boole ko 1300 nga sarax ko jigéen bu mag pour yàlla taxaw la yàlla defal la jàmm sinon jeeg danaa la randul pour toogee sa place te méritoo woo loolu da sonn seet ne mu taxawalaat jigéen nga mais dangay taxaw taxawaayu góor nee mu taxawaat ba tey boo góorgóorloo yàlla dina la dimbali ibbi sa wàllu wërsëg ca wàllu ndam wàllu mbég wàllu sant yàlla mais xel mi dalul fit bi toogul nee na yenn saa yi sa xel du dara dara dara dara dara ndax fois da nga bari déception moo tax yenn xaw a tiit ci sa bopp. seet nee na bul tiit ci sa bopp nee na nga dalal sa xel te nga wut faaru mbaam nga saraxe ko di nga ëmb nag doom bu góor doom boo xam day taxaw taxawaay kilifa mais danga nga sa bopp dafa tëju njombe nee sa xel mi dalul nee ngay defal nit lu baax toggal ndambe benn bool nga taaj ko ci diggu kër gi. ma togg la. ndambe ñebe. ndambe ndambe ndambe waaw ñebe. nee na nga togg ko nga taaj ko ci diggu kër gi xale yi mhm. buñ ko lekkee ñaan ci mbirum sëy bi nga ñaan sa wàll avenir ndax damay gis sa wàllu yaram mën nga dugg ci dara yaakaar ci ndam mën ngay lijjanti xaalis mu xaw a dëgër. nee na nga daal di togg benn boolu ndambe nga dagg ay mburu teg ko ci kaw xale bu ñu koy bere yem ci ndambe bi ni ñu kontaanee noonu la yàlla di def lépp looy dox mais diggante yoor yoor nga koy taaj nag ndambe bi yoor yoor nga koy taaj pour nga mën cee am li nga bëgg ndambe yàpp wala ndambe ndambe ndambe keccax Ousmane ndambe yàpp moo dàq ndambe keccax waaw waaw ndambe yàpp naam dog yu bari nag gone mhm. yi kontaan waaw nga daal di koy jox xale yi nga ñaan si wàllu sëy bi ñaan si sa digganteeg waa ji nga ñaan itam yàlla defal la jàmm. Mhm. sinon boo ko deful jeeg da lay déjjati pour toogee sa place njombe te dina la xaw a jaaxal neen sa sëy bi au plus dina dugal sëy ku jëm mais gis naa xel mu dalul génneel ñetti paquet suukar nga sarax ko ñetti jigéen nga koy jox boo ne ko joxee ñaan ci sa diggante yaag waa ji ñaan ci sa wàllu wërsëg waa ji sa wërsëg lay doxee de bu la respecté rek ay mbiram dox mhm. ku la naqaral wala ku ay robinet maa ko wax naa ko mu delluwaat wax ne di nga am ndam di nga kontaan mais jigéen nga mais sa fit fan yi dalul sa yaram bi dafa diis yaram bi dafa diis gan boo xëyee doo mën dara wutal mën ndoxu géej nga def ci set allo daal di coupé wootewaat waaw xoolal. Euh, waaw léegi da ngay dangay ngay da ngay da ngay da ngay jël numéro bi comme ça après nga woote ci dégg nga dégg nga ah? waaw jëlal numéro bi comme sa après nga woote ci bu ko defee ñu jël euh, caatu kër gi waaw mu leeralal la foofu noonu dégg nga ah. ay ci jërëjëf ah, ñu ngi lay kontaane bu baax a baax salaamaaleykum allo waaw na def yow mbaa yaa ngi ci jàmm alhamdulilah tur bi la ak ati fu mu toll Mbenn Fall 23 ans ah yaa duggoon léegi génnaat. waaw ah mbaa baax na léegi. ah Mbenn. allo Mbenn. waaw waaw kon ok taaxirlu kon tey déglu. baax na baax na baax na. ans. soxna Mbenn. moom mooy borom këll bi. Mm-hmm. Mbenn Fall. moo daggoon léegi këll nga daal di ci def xasum xay. nga wut bél-bél ngeen nga def ko ci nga wut xasum waaw dangay wut xasum xay yaa ma dégg mbenn hmm, allo mbenn tey mbenn waaw mi ngi baax wala baaxul mbenn bu fekkee baaxul rek ok yaa ngi koy dégg mbenn ah? yaa may dégg allo dangay wut këll luut xasum xay. waaw maa ngi dégg benn takk nga def ko ci biir këll bi. Mm-hmm. waaw nee na wut tuuti lem. nga wut tuuti zam-zam nee na nga wut meew bëy nga daal di ko ci def def ci ndox nga sangoo ko juróom-ñaari fan buy waaj jeex nga rempli waat ko ba fees nee na boo juróom-ñaari këll bi boo paree da ngay jël dugub nga def ko ci ba maasi nga sarf ko buur gu mag nee boo ko defee incha allahu rabbi projet yoo xam ne yaa ngi koy dox te sottiwul dina sotti sa wàllu wërsëg yàlla dina ko ibbi te it di nga am wàllu muslaay am kaaraange looloy sa gàllaaj boo ko defee yàlla dina la taxaw ibbi sa wàllu wërsëg gis naa ci yow boobu tëju gis naa xel mu dalul mais xol bu neexul dama koy gis yow boole nag nga weex dum ko nga aawul ah. ñan nga naawal ay ñetti picc ngay naawal ñetti picc ngay bàyyi mu naaw dee ko faral di def mooy sa gàllaaj nee na am nga bu baax pour nga yeggale ko mooy problème day mu taxaw bopp bi day tëju mi du dal mais lëndëm lëndëm xol bi mën na bari jàmm ci yow ndam ci yow mbir mu yaatu ci yow ba di toog ba sant yàlla tàndarma de ko faral di saraxe. tàndarma naara koy jaay. tàndarma dee ko génnee nga di koy faral di saraxe te nga moytu toog ci gën boo ko moytandiku looy dugg mbala tey boo ba nekk ci sëy nee na booy toog ci gën day tas neen nga faral di bàyyi loolu xel. nee na mu taxawaat jàmm mu taxawalaat ndam mburu sa sarax la ak soow nga def ko ci bool mbenn nee na boo ko saraxee yàlla dina la tàcc sa sëy bi yàlla dina la defal jàmm. dina la gën a jubóole ak sa jëkkër ba liñ ciy tiit ak liñ ciy ragal yàlla dina la ci musal mais ndox day ko faral di saraxe del faral di fonk di saraxe ndox yàlla dimbali la ibbi sa wàllu wërsëg ci sa wàllu gudd fan dégg nga mais xel mi toogul seet ne da nga toogee ñaari xel sa diggante góor gi nag da nga cee stressé wu trop seet ne yi ndax dañ la cee liggéey pour doo ci am jàmm pour doo ca toog ak conscience di fonk saraxu guro ah. dee ko génnee saraxu guro soo ko dee génnee rek incha allah lu la nit ci kàttanu suñu borom dégg nga. incha allah. Mhm, defal bi nga woote ci bu ko defee tubarkalla mu taw feexe foofu noonu al waxtu mhm, saamina. al waxtu saamina waxtu wa na papa pëng. jërëjëf mbokk yi tuub lañuy defaat ak jéggaluwaat bu baax a baax ci ñi nga xamante ni bëggoon na nañoo dugg te jotuñoo dugg. waaye du ci ñun mbir yee di demee noonu xam nga fii naa leen dañ lay mos mos mos mos la rek da ngay mos waaye boo bëggee lekk ba suur ngay woote ci numéro bi 77 060 43 10 foofu noonu euh, fa la mburu ma di gën a xoyam ko yow xanaa dangaa dëkk ko wax képp ni da a woote ci numéro bi 060 43 10 77 060 43 10 boo ci wootee léegi léegi incha allah rabbi dina la seetal ba nga takk say bagage euh, tey nag ñu nekkoon ci thème boo xamante ni thème bu am solo la muy ñi nga xamante ni nii euh, ñooy rey doomu aadama yi te deewuñu ci réseaux sociaux yi euh, soxna Mariama mu nekk loo xamante ni nii nit ñi jugtee nañ ko léegi te nekkut lu baax ana lan ngay ñaaxaat ñiy def loolu noonu avant ñuy tëj waxtaan wi. naan sa lëwal bu saf saf. waaw añ sa ceebu jën bu saf bu neex ceebu laal sa lëwal. toog amoon lu dul gis ne de bañ rek daal di koy rey. Mhm. ñu fi rey bari de. torop sax aweer ñu rey nit. te ki ñuy rey day bu ko nit ñi seetee rek dañuy tiit ndeysaan ndax dañ lay ñeemanti dañ lay yërëm loolu nag état moo ci war a jël réactement ndax dañ mm-hmm. ñaaw mm-hmm. bëgg ay vie mbala bëgg ay ay ay aimé ko mm-hmm. mën nga def say mën nga sa defar sa dara ndax ñun ñu ngi kondo ñu ngi créer suñu set euh, créer suñu voyance te njëkk a def set ki ah, looy def muy lew defal loo xam ne ku la ci fekk naw la mais loo xam ne ku la nga ne dama doon acam dafa doon caaxaan mm-hmm. loolu jaru ko alal dafa mm-hmm. neex ah, bu dee Ousmane dund dafa neex ba bu la nit daal di publier rek pour nit si seen yaram day te Ousmane euh, loo xam ne lu am am solo la laay appel lu taxawal appelu laayeen ndaxte Ousmane mhm. lépp Sénégal la euh, te Sénégal dafa neex mhm. dinaa événement religion yi dafa am solo Ousmane mhm, ndax buñ koy daal di wane dañuy kontaan dañuy bëgg buñ koy daal di wane booleeg na ñiy jëfee ndigal ak discipline bu mat na ko fa nit ñi yóbbu ndax Ousmane Wolof danaa ñi gaamu ak ñi raas dem démba bokkuñu am na ñoo xamante ne dañ leen ci ay événement di sàcc wala ñuy profité wala ñuy jéem a yàq yooyu nañ leen ko di bàyyi te xam ne mbirum yàlla suñu wootee mm-hmm. ci islam woote ci diine boo fekkee mm-hmm. dafa am noo fa war a demee muy discipline mm-hmm. muy yaru muy réglé muy ne gàmm am na ñoo xam ne fas seen xiifa leen yóbbu am na ñoo xamante ne te bépp bi mooy wuti yiw wuti tiyaaba te jël sa ñaq def ca mm-hmm. ndax nit ki du da nga war a xaabaabal Ousmane mm-hmm. ñett yi boo ko fa defee balay ren di déwén di nga sa bopp fu gën a kawee boo mm-hmm. xam ne dina tarkale te di nga ci sant yàlla moo tax dafa jar bàyyi xel ñuy ñaax suñu mbokk Sénégal ndax dañoo xaw a sàggan ci côté boobu am na ñoo xam ne dañuy wut yàlla mais bu nit di dof daf di muus di wut yàlla yow itam dabal nga wuti yàlla ndax kenn xamul fu yàlla ne mais tey nit day wut yàlla nga ah, jëkkati sa alal def ko ci nit ñi mm-hmm. kon Ousmane ñu ngi jéggalu ñëpp bu fekkee wax nañ fi dara loo xam ne dafa safaanu ñu ngi leen di baalu waaye mm-hmm. Mm-hmm. bu neexee yaa jaay sa mbagg te yéen a jàpp sama mbagg yéen na seet bi Mariama la image am la ñu gis mais liggéey ngi ca ginnaaw équipe baa gën li soxna na yàlla jàmmal ñëpp moom ñu jàmm yal na yàlla tawfiix ñëpp yàlla guddal fan yëpp yàlla jéggal suñu juum te doomi aadama ak suñuy rëcc rëcc ci barke Seydina jërëjëf euh, soxna Mariama si mu Serigne euh, Babacar si jaajëfal bu baax a baax euh, mbokku internet yi nga xam ñu ñu toppoon depuis ba ñu tàmbalee ba léegi cant ak ngërëm daf lay daal di ñeen saa su nekk rek comme ni ma la koy waxee yow dañu lay ñaanal suñu borom dooleel la kàttanal la guddal fan wi ba mission bi nga xamante ni moom nga sumb yàlla suñu borom may la kàttan koo ko àggalee mm-hmm. ci noonu tamit la ñuy jaajëfalee ñi nga xamante ni yëpp ñoo ñu doon teewlu ndax kii wax kii déglu rek mooy mbokkam Euh, te wax fa dëgg neex yàlla ñoom euh, bu ñu tàmbalee euh, dañuy bàyyi seen yitte bàyyi seen soxla toog concentré wu ci émission bi di seetaan daal di ku nekk rek amoon na nañu yéene jël la waaye jaam pexe yàlla ak dogalam mais képp koo xam ni jotu ñu la jël ci live bi mën nga woote ci numéro bii di 77 060 43 10 77 060 43 10 yéen ñi nga xam ne aussi yéen a nekk ci YouTube bi ci Salam Vision yéen ba tey numéro baa ngi doon affiché ci écran bi mën ngeen ko jël Euh, képp ku ko ci yittewoo rek muy 77 060 43 10 bu ko defee bu ngeen wootee incha allah rabi soxna Mariama dina leen seetal ba ngeen takk seen i bagage naan kii xanaa la dëkk ak man ma nga noonu kon ñu ñaanal ñëpp jàmm ko ci yéen yàlla bi nga xamante ni moo am jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilah léegi da nga koy yónnee 5000 5000 lay seetee fii ku yónnee 5000 par orange mu bay tey bay